نبى لخير الله قبل بندر بأهل بدر حسود قضري نبى لخير الله بندك كل أذن لي جره مكاره حل من الرحمن أنف سمينة بأنني قديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جانب إلى المناكر أصحب أن الله بي قرمسات التساوم يسر للمنى لدى لمرولي من قاد لي ما غاب عن كل ولي لي قاد أهل بدر الوسادى من سحزان لا إله إلا الله ساق لغير الله فيما ينبع ما ساء قلبي ولن جنبا لله قد وصلت عندك الوا وساء هما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كبت آياتي إلى المدهور علمني العليم هند ساقرا مما يساو لم ينوني عند البور المغرقات داء النقم ممر أو دواء فاسقات يسر للجميل عند المولكات ما زانني عن جانب المصركات هبات من لي كان عند الواسعات وساتعات مدليا أنوار عند ظلمات لا لدى أهل الكتاب من السقاوة ومن كل تاب أكرمني عند ذوي الإسراك من قادني إليه بالإدراك ناجيت بيا نسير يا ولي laytani ibliis inda jeewali koo xam ne boo meree du la mere boo soree du la sori boo gorewul moomu gore kii ko bañ torox Sëriñ Tuuba koo xam ne guriwul moom mu gore kii ko bañ di nga torox kii ko gis sax ku la gis ku gis ku gis waaju ko gis bi ñu demee ca booba bis mu rammu leen kenn du torox auzu billahi min alsheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddiini wa radiallahu an seyxina ahmadul xadim wa ala xudwatina al azim am cheikh ibrahima fall babul muridin barkeb cheikh abdul karim mbakke fadilu ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sayyiduna muhammad di fedd lii suñ koolu téef ci seyxul xaddiim di balu xaq bokk yépp ñi leen baal waaye di ñaan yàlla san borom boole nu jéggal di ñaanal sunu sang seex muhammadul muntaqa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér mook mbooleem kilifa yi ŋànk yoonu sëñ Tuubaa yi waaye ñoo ngi koy ñaanale képp ku lislaam tax a jóg di nuyu bu baax di ziyaara mbooleem mbooloo mi fi daje di ci jiital sun sang yu baax yi bokkal jotaay bi nga xam ni njabootuk sëñ tubaa lañ njabootuk sëñ tubaa nag ñépp ci lanu bokk waaye loo gis am na ku gën a jege ñiy sant Mbàkke te nekk ci jotaay bi sëñ Abdul Xaadir ñoo ngi leen di ziyaara bu baax a baax yàgg sa bokk yu baax yi ñu ngi leen di jox cër bi nga xam ni moom la yàlla doxale suñu diggante ak yéen mooy nun alali borom Tuubaa la waxuma ñi sant Mbàkke waaye ñii nga xam ni seen maam yaa àndoon ak boroom Tuubaa sos yoon wi rekk fu ñu leen fekk nangu nañ di seeni jàmm waxuma ñu sant Mbàkke nag waaye ñii lii nu jot seen maam ya ñoo ko xare ñuy ziyaara bu baax sëriñ bu Mbàkke moom tamit waaye di ziyaara seen mbokk yu baax yi ñu toogal ci jotaay bi ñii di ay sëti sëriñ Mbay Njaay Cargaan sëriñ Babacar Njaay ñii di ay sëti sëriñ Ibrahima Lo Ngaabu ko mel ni sëriñ mustafaa mii nga xam ni doomi sëriñ Daam Lo mu baax ma la xawma ku gën a murite way juróom moom sëñ Daam ku ko gën a murite xawma ko moom ndax yàlla dogal na ma ma jotoon koo xam noo ngi lay nuyu bu baax loo di nuyu bu baax sëti sëñ Adama Guèye yeeg ma Mababou yi nga xam ni sëñ Abdoul Ahad Guèye mii indi nu fi ci la bokk am na léegi ku ma sëñ Ibrahima Mbaye di nuyoo leel li ma wax ni sëtub sëñ Maxtar Bintaloo la li ma wax ni jàngalekatub alxuraan la ma ne ko mook sëñ Abdul Ahad ñoo bokkub tool waaye nag jaaxaluñu li tax jaaxaluñu fekkoon leen yéen ngeen nekk ci leneen moonu mën a tiital waaye lépp lu baax buñ leen ci gisee du nu bett ndax seen maam yu baax la waaw li génne ci frigo bi buy bax lay jaaxal nit ñi ndaxu tàngoor waaye bu seddee kenn du jommi waaw yéen seen maam ya bu ñu fekkee seeni set ci alxuraanul karim bu fekkoon dañuy làkk arab dañuy wax laa wa ndax ñoom ci lu baax rek lañ leen xamoon kenn ku ne ci ñoom sëñ Tuubaa daalaa defar ba ngay am Ahmadu bàmba mu bàyyi la nga dellu ci say bokk kenn ku ne ci ñoom am Ahmadu Bamba nga woon xam naa bu ñu doxee tuuti dinañ ñëw ci loolu waaye li wér moom mooy na ngeen xam ni sëñ bu mag bi ay Ahmadou Bamba yu bari defar moo tax bi rasulullaahi jàlle ku réussir ni moom amul sëñ Touba lim réussir ci yoonu yàlla wi bu njool màkk jàllee keneen réussiraatu ko waaw gaa yi baaxoon nañ defar woon nañ waaye defar ñu mel ni yow yombuloon gannaaw njool màkk sëñ Touba ko amaat defar ay nit ban mel ni yow waaw sëñ mag bi ay Ahmadou bàmba la defaroon xam naa dinaa ci ñëw su ma noppee ci nuyu bi waaye maa ngi nuyu jëmm ju baax ji nga xam ni gox bi moom la ci yàlla jiital ci wàllu administratif muy sëriñ Pape Momar Ngom mii toog di taalibeb sëñ Touba di nit ku baax ku yiw wax naa ko fii daaw ñu leen man du ma seede lu ma xamul waaye kii li may seede ci moom maa ko dund ak moom yàlla moo dogal nu bokk kër sëñ Abdul Karim Mbàkke Faddilu muy siyaar sëriñ bi ma koy siyaar mu amee ci kër sëriñ ba taxawaay boo xam ni benn taxawaay la rekk yàlla di dox di dox ba dogal sëriñ bi jël doomam jox ko ko ku mel ni Saliou sàmb bu amoon loola ci sëñ bi mën naa yëkkati mbagg waaye moom keroog la gën a doon taalibe borom Touba soxna si ko sëñ du Karim Mbakke fëli lu jox métier mooy jàngale alxuraan waaye lu soxna si daj ca liggéey ba moom mi ko boot daj na ca lu ko ëpp te waxut moo arrière bàyyi ko muy feeñ maanaam effacé wu waaw lu ne moom mii liggéeyal na ko alxuraan ndax lu soxna sa man rek moom mii la nun ñu koy wax nag xam nañ ci dara kii sëñ tubaay maamam nag alxuraan ay métiem méttiwul li tax méttiwul mooy moom dafa wax ni cat jàpp na ma gimmiñ jàpp na ma Cheikh Ahmadou Bamba moo wax ni gimmiñ jàpp na ma daal xam ngeen nu mu ma jàppe ñu ni ko mbàkke bëgg nañ koo xam mu ni damaa bëggoon a dëkk Touba di jàngale alxuraan te yàlla mayu ma mu sotti sëñ Touba nee na lii tax gimiñ jàpp ko waa léegi dégg woowu gimiñ samp sëñ Touba ku ko bëgg simpi foo jëm kon ah ndax dégg nga ma moom moo ne cat jàpp na ma li ma cat jàppe mooy gimiñ jàpp na ma lim ma jàppe mooy man Ahmadou Bamba damaa bëggoon a dëkk Touba toog fa sax fa di jàngale alxuraan ma wax ni dégg woowu cat samp borom Touba ku ko bëgg a sikki fooy dem taxaw ah ci alxuraan rek ndax comme moom loolu la bëggoon dama ko wax jamono yi ci benn kilifa bu jóge woon penku di ma ko waxtaanloo ma ni ko daa am yoo xam ni donte du farata ñun murit dañ koo wara a farataal nga fi mu toll am un ma ne ko am un milliard muy un kese kese kese di sa bit jëpp àdduna nga laaj bi yëpp madinatul munawwar bu xaj nekk farata waaye laajal bi yëpp madinatul munawwar rek ñun la pour nga tiim sayiduna muhammad ni ko seex ahmadou bamba laa fi ñëwal milliard ngay fay nga joxe milliard bi miraasu dem war naa mën a nekk ci benn murit bu mu mën a doon waaw xam nga waxuma jaral nañ xalaat jaral nañu lu ko ëpp mais nañ xalaat way yii may wax way yii dafa am ay bayit yu may wax su ma ko waxee ba noppi bu fekkee ni warula tax nu def ko ñu xamal ma ni warta tax bi ma waxee loolu ba noppi ci jotaay ba ci Touba Mbacké la damaa wax ni ay waya ngi yoo xam ni war naa tax murit bi am un milliard passé ko tiim Rasulullah ni ko siyaareel naa la borom Touba ñibbisiwaat bañ a def dara لمن يقاتلني في ذوري baytaani min xawli man bil urfi zur man tuhibbu nee na ñaari waay a wax ak man baytaani yan bayta sëñ Tuubaa yan way ñoo wax ak yow mu ni zur man tuhibbu wa in shatat bika daaru fa haala min dunihi sahlun wa awharu laa yamna annaka bu'dun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawwaaru dégg nga lam ca teg loolu yi tax ilayka xatturtu min xawli wa min amali wa min jamii allazi xat kuntu axtaaru ma wax ni ki wax bayit yooyu ba noppi di wayaat ba mu yàgg mu taxaw daat ni wa huwa allazi ayqa jismi an ziyaaratihi laakin lisaani lahu kal xalbi zawaaru waaye sàllamiñ weeg saaxol bi ak lii ma mën concentré wu bind at mu nekk ameel naa koy bor yu ma koy jox ay bori tagg la lahu alayya li wajhillaahi daynu sanan mustahsanin kulla aamin yow ma yuxtaaru dem feeca wala xadd karam naa di way ba mu yàgg mu waxal boppam xajji bi xal bii xajji bi xal bii taqabbal wakfi nii qataan wal tam onsay nii wa kammil nii bi ma saana ma ni way yi boo ko déggee te xam ni ci moom la génne moom Ahmadou Bamba war ngaa mën a am un milliard siyaaree ji ko rasuululaay ni ko borom Tuubaa laa fi ñëwal njib bi xaalis bi jeex maanaam misaal mooma ma joxe foofa laay joxe ci alxuraanul karim ci sëñ Touba mooy li ma wax comme moo génne ci làmmiñam ni gimmiñ jàpp na ma li la gimmiñ jàppe sëñ tubaa mu ni jàngalekatu alxuraan laa bëggoon a doon te mënatut a nekk loolu li ma gimmiñ jàppe léegi ci sëñ tubaa laa bokk njabootam laa damay jàngale alxuraan yow bu fekkee gars yi dañuy dàkk sëñ tubaa di xalaat ni ñoom fiñ koy dàkk ma nga fa am déet yow mi ne ci alxuraan xamal ni yow moom jàpp nga ki ngay dàkk Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Basirou dama ni fu waay mën a ne di def lu baax borom Touba bëgg na waaye ki koy dàkk ci alxuraan moom sëñ Touba moo jàpp sëñ Touba moom. lii ñoom sëñ Abdou Lahad mii di liggéeyee loolu la sëñ Touba bëgg ku ci ne loxo yi ma am nee na moom laa ko ngëbe masikan bil kitaabi maska dariiri bi yadil xaaidil basiiril muini loolooy ngëb naa téere bi ngëbinu silmaxa boo xam ni tum ba mu yore kay gis kam ko jox da koy dimbali sëñ mag bi foofu rek nga yam ci téere bi noonu rek nga ngëbe mu ni déedéet tamassaktu bil hablil matinil murattilan wa bil xurwatil wusqa allati hiya nuuru am nga coffre-fort mu ne alquran la huwal kanzu wal kibritu wa zaadu lii huna mooy sama yóbbalu àdduna bihi tantafi naarul gadan wa saburu kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi wallazina yumassikuuna bilkitaabi wa axaamu salaata inna laa nudiiu ajral muxsinina ca laaraaf ajral muslihina ca laaraaf mu ni wala zine yu masikuna bil kitaab bi mu aj loxo bi ni masaktu bil kitaab bi waa xaamu salaata mu ni zaa i xaama li salawaatil xamsi bisti xaama tumma awrasna al kitaaba allazina stafayna min ibadina mu ni awrasani rabbi kitaaballahu fadlan wala ilaha illa allahu awrasani laahu kitaaballahi wa jumlatil kutbi bi hizbillahi sëñ mag bi noo demee téere bi mu ni jëmmi téere bee seey ci saa dënd bi farali kalkali kitaaballaahi wali yadi wa xustu ajrallaahi xafistu zikraka bi qalbi wa yadi yaa baaxiyan abqaytani bi laf yadi daawul digam safaan waaye dig na ko ku wan ginnaaw alxuraan maa ngi koy wax sëñ Ibrahima léegi fi nu toogoon maak moom ma naa ko fa kullu man aafahu la qas saxaawaati wa huwa alhuda wa siraatu almustaqimu lana fa kullu man aafahu la qas saxaawaati waaye wa innahu alxurwatu alwusxa fa mumsikuhu gadan yafuuzu lada almawla bi jannaati yaa kitaabal karimi anta xabiibi wa xaliili wa kunta xabalu tabiibi arsalahu laahu ilaa kullil waraa murattilaa zikran alayhi unzilaa hudan lizi taallumi waaye yaa xayra munzilin yi yow mi gën ci lu ma sa wàcc ci yow lañ gisee maxaabal la fàdd woon zaata dabburi way settantal ya man Ahmadou Bamba mii nga xam ni maa gën a sellu setub dënn ci àdduna ci yow la yàlla setale sama dënn bi rabbi sa fi fikar yi bi ka bi xayri tuhami wa huwa allazi man sabata fiihi sëñ tubaa nee na ku sëgg ci alxuraan di aji dëggal sax wóor ne fa léegi nga doon benn waay ca yàlla wa huwa allazi man sabata fiihi walam am za amanin yakun fata inda shakuril akrami kon fi sëñ mag bi teg alxuraan loolu rek doy na ci sëkk mu boole ci nag daa wax ni bu ñaar bu ma séenee ñaar ñuy dem ci kaw suufu sa borom si dinaa xam ki ci gën a diis ndax ki ëpp lim mokkal ci alxuraan mooy gën a diis bu ma saana yónni ndaw mu bëgg a sampu xel fekk daa wattu alxuraan da ko naan bul daw doxal li nga yenu lu diis la yenu lu diis ba noppi di daw warte mën a ne mbooloo mi ci kër gi da leen daan wax bu ngeen di yónnee fii ak ku wattuwul di fi am bu leen yónni ku wattu alxuraan sëñ tubaa danaa wax ni bu ngeen di yónnee fii ak ku wattuwul di am ci kër gi bu leen yónni ku wattu te waa alxuraan sëñ tubaa waxoon ni mooy seen jëwriñ ñooñ alxuraan inna sanulqi alayka xawlan saqila moo taxoon sëñ tubaa boo mokkalee bu lay yónni boo bëggee daw mu ne la li nga li yanu laa diis ci sa dënd bi daa diis bul daw doxal loo farlu farlu loo sawar sawar ci ndigalu sëñ tubaa bu fekkee alxuraanul karim moom moom ci sa dënn sëñ tubaa bëggul nga daw bëggatul nga daw del dox ndànk ndax sëf bi daa diis am na mag muñ ko indil ci mag ñi bi ko wéy juróom di indi daa ndawe lool wax nañ ni buñ ko indee wéy juróom wax sëñ bi damaa bëgg nga xool alxuraanam suñ mag bi dañu ko xanaa daa dal si ndax ndawe gi daa ñëw dal si mu ne ko déet dama dafa dafa ñëw nga xool si xoolal si ko alluwaam daa wattu mokkal na ah, loolu moom yéeme na di taxawal ne jàng baqara maanaam mu taxaw jàng baqara ba mu jeex mu ne ko jàngal alimran mu jàng alimran mu ne ko jàngal nisaa yi mu jàng nisaa yi mu ne ko yii moo ma wax yi ci des moo ma seedal li ci des ñëwal toog nii daal koy jël teg ci poojam ndax ndawe ga ndax ndawe ga mm-hmm. ak ñeneen sax am na keneen ndawe gi moo ko jo moo tax mu jox kooka cër ba teg ko fii suñ mag bi bu mbooloo mi masaan masaana bari kenn xamee ko woon jéggat mbooloo moom borom tubaa waaye bu séenee ku alxuraan bu fekkee ñëw bi neexul moom mooy jéggat fekk si la nangoog ñaari loxo ñaari loxo la daa jële bu dee alxuraan la su daan tëju xalwatoot danaan ku fi ñëw te man maa nekk na nekk ku mënta nekk mën naa jàll ku yor alxuraan nee leen ko na ma nekk wutal leen ko fu mu nekk di ko teral ba bu mu mer ba ba may génn sëñ tubaa alxuraan jaral moo taxit yàlla xëy ni ko Ahmadou Bamba may naa la téere bi lii rek la lii tax yàlla xëy ni ko téere bi yaa ko yayoo ñii dañoo dem ba wax ah, borom téere tafsir yi am na ñu ci wax sax ne alxuraan du waxi sans borom melaw sans borom la ñu wax ne wenn xarafa ci gën rasulullah sëñ Tuubaa def alxuraan ni mu ko def damay faral di wax suma waxtaan yu bari ni boo bëggee xam Cheikh Ahmadou Bamba diggam ak yàlla da xool ni mu def bagage yàlla yi xoolal ni mu def alxuraan rek xool ni mu def rasulullah yi xool ni mu def néegu yàlla nga xam ni moom faw yàlla di xaritam parce que bu fekkoon am na luy luy symboliser suñu borom ci kaw suuf bu Sayyiduna Muhammad génnee alxuraan génn jàkka yi génn luy des moo tax Baye Sàmbay mas naa wax ni buñ doon séddoo lislaam ki jël alxuraan jël Sayyiduna Muhammad jël kaaba gi jël sariya islaamiya ndax am na koo ëppale te booba borom Tuubaa la ci jublu parce que ni sëñ Tuubaa def bagage yi yàlla yi moom rek moo ko ko mas def moo tax nag mu mujj devenir xaritub yàlla yàlla amul ndey amul baay amul mag amul rakk amul doom waaye am na xarit nag li nit di am yàlla xarit la ci am ma waxu ni wataxazallahu ibrahima xalila am déet waaw bi yàlla li yàlla nangoo am suñ Tuubaa fexe na ba mu doon ko ci moom leneen lu yàlla nangu woon a am dina fexe ba doon ko ci moom xarit rek la yàlla nangoo am boroom Tuubaa fexe na ba doon ko ci moom du ay pexe nag farlu la ba doon ko ci yàlla waaw ñun ñii ay doomu aadama lañ kalaas Saliou Samb gi léeg-léeg ñu tëdd guddi sax gént xëy bëgg koo nett li mu jafe leen am de waaye seen kër ka fa gën a dégg seen ndigal moo gën a doon seen xarit am de waaw bu fekkee nit am fu jooju yàlla mi ko jox oxygène bi muy nag te joxu ko facture waaw bu fekkee nit a am fullay laa wax fullay këram moom Saliou Samb mii fi ñu ko ni moo ko yilif la muy doon doon aspoxus ka fa gën a wéy ci ndigalam ma gën a doon xaritam am déet waaw bu ko Saliou bu Saliou Samb amee fulla jooju ki ko bindoon te jox ko oxygène bi muy nooy na te kaw suuf si sëñ Tuubaa fi gën a jëf ndigalu yàlla moo tax mooy xaritu yàlla léeg ma wax ko ci jotaay yi ni leen bàyyi leen di wax ni dañuy bokkaale nun duñ bokkaale bokkaale wuñu yàlla suñ sëriñay xaritu yàlla te xarit di sañ ci alali xarit ba dara loola suñ tubaa sañ ci yàlla nag moom la ñuy nett ngeen naa dañoo bokkaale bokkaale wuñ de suñ sëriñ xaritu yàlla la taalibe suñ tubaa mënta bokkaale li ñuy nettali yoonu géej gii nga xam ni moo waral safar gi yoonu géej gi 21 septembre sëñ tubaa sànni der ci ndox mi dox jëm ci kimi ñu gaal gi tubaab bi jàpp ne day xaru li tax ñu jàpp day xaru mooy bëgg a jëf ndigalu yàlla kooku taalibeem dina dina bokkaale yàlla ah ku jëf ndigalu yàlla jaral def luñ naan dangay ngay xaru kooku sab taalibe koo ko koy kilifaam dina bokkale yàlla murit mënta bokkale yàlla parce que jëf ndigalu yàlla moo jaraloon sëñ Tuubaa mel ni kuy xaru waxtu jullee jot rek mu leer ko ni fii du neex a jullee mu sànni deram bi ci ndox mi dox jëm ci kimi jugaal gi war a wàcc ci ndox mi tubaab bi nga xam ne daf koo jëloon ni ko bu ñuy génn fii ngay sànku ndax man musuma yóbbu ko dellu si pour moom premier réussite mooy bi gaal gi déparé tisbaar jot sëñ tubaab dox jëm ci ki mi gi pour moom affaire bi jeex na ku lay faati kay ngay xaru xanaa day kontaan tubaab bi moom xarul la jàppoon bi mu ànd ak mag bi sëñ mag bi dox jëm ci ki gaal gi mu leer ko ni kii day wàcc ci ndox bi ndax dogoom gi moom daal gëm ni moom li ma doon bëgg am na waaw ku jëf ndigalu yàlla jaral mel ni ngay xa mel ni da ngay xaru waa yow sab taalib bi nu muy bokkaale yàlla ñun nan nu baal bokkaale wuñ yàlla duñ ko bokkaale ku jàng mbindam doo bokkaale yàlla ku déggi waxam doo bokkaale yàlla Sëñ Tuubaa boo ma sana wax yàlla rek kay buur ci wetam dalay saa baaraam ni la del wax yàlla daa lay buur boo yàlla rek day mel ni am na ku mu dendal su ma saan a tudd boroomam moom Cheikh Ahmadou Bamba mag ñi ku ci teg baat danaan la kooku wahdahu laa sharika lahu buñ ko tudditee bu ci teg dara allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kuf ahad wa sarmadan bil mulki walhamdin farad ashadu annahul ilahul waahidu wa anna ahmada rasulul aabidu wax feeni malikun lahu charqun wa garbun wahdahu wa kazalahu barrun wa bahrun yukmilu am fu mu wax ni lahul wujudu lazi qad saanahu qidamun ma al baqaa'i wa gayrullaahi lillaahi am feneen fu mu wax ni wa huwa alqadimu maa lahu bidaaya wa zu baqaa'in maa lahu nihaaya wa waahidun main lahu min saani walam yazal jal ni sëni kooku dongoom dina bokkaale yàlla allahu rabbun jalilun malikun ahadun barun latifun karimun lam yazal samada kooku murit dina ko gis di ko di bokkaale yàlla ñun ni ñuy bokkaalee neex na réew muñ nekk néegu yàlla ba fa gën a seer noo ko defar te kiñ ne moom la ñuy bokkaaleeg yàlla defaruñ ko néeg bu ni mel doy na xaw ma dégg ngeen maam déggoo leen ma ma ni ndakaaru gee may fanaani man néeg ba fa gën a seer murit yaa ko liggéey yàllaa ko moom sëñ Saliou waaw Cheikh Bass ngeen baal ma rek ngir jëmbi sëñ Touba bañ a bokkaale yàlla googu mu wax li koy dëral nga xam ne bokkaalewunu yàlla bokkaalewunu ko sëriñ Touba ci lii mu nekk ak barkeeb alxuraan gaa yi yëngu leen ngir jëmmi sëriñ tuubaak ak alxuraan ak bañ a bokkaale yàlla te xool ca ba mu fabee bàyyi ko ci géej gi ci gaal gi wuti ci mbeex mi na ñëw sëriñ bi kat balaa demati dimbali leen ma rek mu ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaw dimbali leen rek mu ñëw na ñëw waaw na ñëw bisimilah yi na ñëw tekkeereel ji bari na de na ñëw màggat jógal waaw na ñëw akasa na ñëw jokkalante leen mu ñëw ñëw jox ko na ñëw mu ne kon boo gisee ma ne na ñëw na ñëw na ñëw fii mu toll ak barkeb alxuraan ak ndimbalal sëriñ Touba ak ñu baax ñii nekk ci biir te kenn ku ci nekk bu ñu doon limal tey jàngkati alxuraan yi fii bu ñu génne woon ak ñiy taxawu alxuraan ci sayir si muy ci wàllu àddina kilifa yi ak ci wàllu lislaam loolu tey kon baas bi widd ndax lu ci nekk maa fekke maa gis bisimilah sëñ Saali jërëjëf Cheikh Mouhamadul Basir yàlla day aji maandu yàlla ku maandu la nga baatu wa maa rabbuka bi zallamin lil abid moo atte jaam ñi ak sëñ sama borom dafa waxoon rek ni man amila salihan fa li nafsihi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ma ni baatu wa ma rabbuka abid moo atte jaam ñeeg borom nga nu ko atteeg ñoom mooy bi yàlla defee nii borom Touba baat wa ma rabbuka moom moo wax ni keneen ku defoon yàlla ni ko borom Touba def yàlla def la ni mu def borom Touba baat boobu àtte jaam ñeeg sëñ tubaa Sénégal nag problème bi ñu am ak sëñ tubaa du dara dañoo gëm ñaan te gëmuñu may Sénégal sëñ tubaa moom amula kenn problème dinaa ñëw léegi wax la ne amula kenn problème pour nga xam ne amula kenn problème dinaa la wax ñetti bayit wala ñeent ci Fawzeyni wala juróom yu rangaloo nga xam ni moom amula kenn problème tàggoo na ñëpp waaw waaw ci Matlabul Fawzeyni am na ci juróomi bayit yu rang xaw ma ñeent bu ma la ko waxee di nga xam ne sëñ tubaa ñëpp ñi bëgg ak ñi bañ ñëpp sëñ tubaa ak ñoom bu ma la ko waxee léegi di nga xam ne sëñ Tuubaa moom tàggoo na ak ñëpp amul kenn problème ñi am ak moom problème na nga xam ne danoo jàpp ne danoo am ak moom problème seen problème du dara danoo gëmug ñaan te gëmuñ ak may dama la ci jox misaal bu terre à terre mu toll da ngay ànd ak nit ngeen jógandoo di wut yéen àndoon di wut di ñaan yàlla am mu xëy am jékki-jékki tabax lu gudd war oto bu seer nga jiiñ ko faramaçon faramaçon la wala day jaay dorog wala nangam déedéet yàlla da koo mayagum rek yéene ko ko te xaar yàlla mën na la koo may borom taax mu rey mii boo taxawee yow Saliou Samb xool ba mu rafet ci sa xol nga ne yàlla na ko rappal ak jàmm boo jon ne ci der bi ñaan ko yàlla mu may la ko waaye bu fekkee da ko cee teg baat bu ñaaw nu la ko yàllay maye yàlla jaamam yi la bëgg Sénégal problème bi may yi yàlla may sëñ Touba te ñoom ñu xeeb seen bopp ñoom der bu ñuul ci am ko xaw ma dégg nañ maam déet waaw der bu ñuul ñi ko yor ñu ci nañoo yàgg a toppe ba yaakaar ni kenn waru leen a topp der bu ñuul borom daa yàgg a néew doole ba yaakaar ni warta am doole rawatina ci diggam ak boromam nag léegi nag li yàlla jox borom Touba te nga xam ne ku dul Seydouna Muhammad ci ñu xees ñi amoo ko woon mooy problème mu sénégalais yeeg borom Touba. ñëw comprendre affaire bi di muy demee nii mooy seen problème lii rek mooy seen problème waaye li ma la waxoon sànq nii la maa ngi ñëw wax la lu war a tax nga xam ni moom tàggoon ak ñoom séqula séqatul ak kenn dara amul ak kenn problème moom laa lay wax ci Fawzeyni dafa wax yàlla ni ko fa kullu man xaddama nii aw zaara xanaa kooku daa nangu door a def loolu ah kon fa najjihi wax fir lahu aw zaara ñu nangu sëñ tubaa tàggoon ak ñoom fa kullu man ahabanii aw maala ilayya farzuqhu hudan aw maala xanaa tàggoon ak ñi ko bëggoon te jàng jëm ci ñoom mu dem ca ña nga xam ni safaan lañ moom it dana tàggook ñoom fa kullu man satamanii aw laamaa fa habalahoo tawbata wastislaamaa xanaa tàggoon ak kooku léegi bàyyi fi ñooñu ñëpp léegi ci nga xam ni bañul bëggul mais daa ñaaw njort ci man wa kullu man azaa zannuhu biya faliya xallib xalbuhu yaa rabbiya ñu yaakaar ni sëñ tubaa fa lay yem xam nga ni moom amul lor waaye mu ni yàlla nang ma fegal seeni lor te fegal leen samay lor wal tak fi nii aza jamiil alamin wal tak fihim ya yaa rabbi amin doy na suñ tubaa amul kenn problème amul ak kenn problème bi mu jógee jaar fi mu jaar nag song lii mu song ba yegg yàlla fii mu ko yegg yàlla digal ko liggéeyal rasuululaay mu liggéeyal rasuululaay ba boromam ni ko kii nga doon liggéeyal Ahmadou Bamba su jàllee jaam ñi yaa ci gënal sëñ Tuubaa wax ni sahidal ilaahu bi annahu ahab lii min wa nabi baadal ahab boo ko waxee ci kanamu jàngkati Sénégal yi nag dañu naan fu sahaaba ya ne ndax gannaaw rasulullahi sahaaba yee ci gën sëñ Tuubaa layal boppam ni yaa man jaaltani bihi misla sahab lafzan wa maanan duna durrin wa garab yusayyiruni kal ali wa sahbi sarmadan wali xaada sirran xaaba an xayrihil moohi ñooñaa moom wa saabiquuna saabiquuna ulaayika al muqarrabuuna mu ni xawaytumaa hawaahu saabiquuna waaye wa jaani qawmun muraafiquuna wa jaani xawmun muraafiquuna nag mooy wali xaada ahbaaban bihim ushirun nuska wa jaani xawmun muraafiquuna xawmun muraafiquuna googu mu wax moom mooy yamatuma ci niroog saaba yi mbaa ma dem ci seen kanam damay defar ay góor yoo xam ni kenn koo ci génn mu wecc benn saxaaba sëñ Adama Guèye maami kii wecc na saxaaba waaw sëñ Adama nag yàlla wër sëggale na ko jigadiwul borom Touba. moo njëkk ni aslamtu nafsi waaye jiga diwul yoon wi de am déet ma ni sëñ Adama yoon wi biñ wootee yoon wi mooy njëkk ni aslamtu nafsi waaye jiga yoon wi ba tey jii nit ñaa ngi dëpp di ñëw ci yoon wi ba tey jii kon siñaade ma jigadiwul yoonu murit moo ci njëkk sukk jébbalu waaye jigadiwul yoon wi de na doy na na gis nga fi mu toll leneen lu ñu waxal sëñ Adama rek Cheikh Adama Gueye magi Cheikh baabu leneen luñ ko waxal baax na luñ ko mën a waxal leneen baax na waaye sëñ Touba moo waxal boppam ni ki njëkk a jaayanteeg man Adama Gueye la. mën naa ko wax ci benn seen télévision am ku ma critiqué ma ne ko ah man waxuma waxi Salif Samb de demal ca ko ko tedd ka kooku nag xam naa xol ba daa neexul rek xam nga yoon wi léegi yi dañ koo bëgg def yoonu kër. waaw affaire du ay kër sëñ tubaa kenn la ñëpp moom lañ bokk nañ bokk sëñ tubaa ku am ndam ci yoon wi nay ndamul ñëpp waaw nañ ko def commun loo xam ni commun la ñun ñëpp ñoo bokk yoonu murit waaye buñ ko def kër buñ ko defee kër day metti yoon wi bu bëggee doon ay kër day metti sëñ tubaa kenn la ku mu defaroon ku nekk am Ahmadou Bamba nga fa nga nekk barke xaalim rasul da ngeen a mas seexub sëñ tubaa bu dem fa bu dem bu dellu dëkkam di fayantoo da ngeen koo mas a mas ngeen ngi seexub sëñ tubaa bu dellu dëkkam sëñ tubaa defar ko ni ko sa borom nee na gërëm na la mu dellu cay bokkam ngeen dégg muy fayantoog kenn dañ koo mës a dégg seexub sëñ tubaa bee moo takk xare mook mbooloo mee dégg ngeen ko pourtant kenn ëpp leen woon mbooloo ci senegal comme ci mas a wax jërëjëf bala ngaa dellu fa nga dëkkoon mbooloo dana la topp bala ngaa yegg seen kër rek fa nga bawa woon waaye da ngeen cee gis ku ànd ak mboolam xeex ak kenn ñëpp ay Ahmadou Bamba lañ ku leen mës a tooñ laa jéggal ñu ne ku fa ne boo jébbuluwut sax dañ lay nangoo jaboote ñoom ndax jikkoy sëñ tubaa la sëñ tubaa rotal ci ñoom sëñ tubaa moo sotti ko ci ñoom koo fi dégg sëñ tubaa defar ko ba gërëm ko sëñ mag bee sotti ko ci moom seex aadama nag seex aadama yàllaa ko wërsëgale mu teel a décoder borom tubaa maanaam bi ci code bi di nekk waxagul saafahani rasulullahi bi xawli rabbi asxaabaka bil himmati walaatu rabbihim bi dars faqat booba la Cheikh Adama de sëriñ bi sëriñ bi it yàlla def ci xolam jublu seex aadama waaw yàlla def ci xolu borom tubaa jublu Cheikh aadama dinaa la leeral kër sëñ Mbacke moor Anta Sali université la woon. kilifa gu nekk nga fa woon ñu sëñ tubaa mag a nga fa woon ñu mag sëñ tubaa ci saayir ña nga fa woon Cheikh aadama ci ñi ko ëppi at ci saayir la bokkoon bu fekkoon ndaw lu mu àndal dem rek la bëgg ku mu mag lay seet waaye yàlla dugal seex Adama ci xolub sëñ tubaa sëñ tubaa jublu ko moo tax bañ ko yónnee yónneentum ndaram booba ngay dégg mu wëri Cheikh aadama ba dëkkam ba mbaabu waaw ñëpp ñëpp la bàyyi ndax bër la woon jamonoy bër daara ji ku ne am foo dem Cheikh Adama dellu mbaabu sëñ Tuubaa laajte ñu ni ma nga mbaabu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yónni ko mu ne aadama Gueye laay àndali ñëw ci Cheikh Adama ni ko dama bëgg nu ànd te booba yoonu murit amul bu ñu leen doon misaal ñaar ñu bokk daara juñ nekk lay doon Cheikh Adama nangoo ànd ak moom waaye ba mu dëppee waa dëkk ba xam nañ ni kii ka mu àndaloon am na leneen lu mu yor lu bokkul ak li mu yoroon bi mu ñëwee nii Cheikh aadama ba muy jox sëñ Tuubaa boppam yoonu murit amul jébbal gi da koo officialisé bi sëñ Tuubaa wootee rek daa njëkk officialisé waaye koo xam ni dangaa ngaa bër war a dallu ji mu fekk la fa di la na dem ndar ak moyen transport nam jafee ja booba nga génn topp ko dem ndar war noo xam ne joxoon nga ko sa bopp parce que nag mësta yor melukaanu doom aadama simple ci seen biir ñoom ñi yàlla mayoon kasfu ci biir dongoy sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yëpp xam nañ ne doomam ji bokkul ak ñun ñu am sens nag Cheikh maa ci jiitu ndax moo njëkk a jébbalu waaye ak ña ca topp yëpp ñu am sens am sens mooy daje ku yàlla yónni ni ko nangu naa li la yàlla yónni sens mënta paase loolu ñoom yàlla daa yónni ci ñoom borom tubaa ñu ni ko nangu nan ko mu metti ñu ànd ak moom sos ko ba mu taxaw moo tax ma wax sànq ni sëti ñi ñi nekk fii seen maam ya ñoo àndoon ak borom Touba sos yoon wi loola du luñ war a fàtte ku jariñu ci yoonu murit seen maam yi am ci pourcentage parce que ñoo wane nan la ñuy topp Cheikh Ahmadou Bamba dama wax sànq nag mi nanu bàyyi jéem a def affaire yi kër yëf yi du kër sëñ Touba kenn la mennum borom tubaa la fu waay tala ñoo yaa xam bu la neexee buñ la woowee wuyool géy ndax fala la boole wuyool joxaane wuyool njaay wuyool jenn wuyool faal yaa xam noo wuyoo waaye foo mën a talañoo boo yegg see ci Ahmadou Bamba taxaw am déet waaw foo mën a talañoo laa wax boo yegg see ci kii waxoon sant la leen ma yàlla taxaw am déet ñëwal jege ma nii sëñ Bas ma jox la rajo bi ñaari baat rek nag laay leeral ndajem diine ba lislaam sosoo ak tey jii ca Sayyiduna Muhammad ba fi ñu toog mbooloo mu daje di ndajam diine lu tax lu tax lu tax daje bi am ñu ni dañuy sant le kenn yàlla wala dañuy sant yàlla ci Seex Ahmadu Bamba la ma sa amee aj màkka lu nu gàll la ay million danan fa daje waaye dañu koo gàll ndax walillaahi ala naasi hajjul bayti am déet lu nu gàll la waaye mbooloo mu dajaloo lu leen dajale ñu ni dañuy sant yàlla dafa mel ni sëñ Tuubaa mars la woote xam nga pour pourquoi mu woote mars bi moom mooy bu fekkee yàlla da dafa dafa mas a ñaxtu ci cant la ñaxtu woon su fekkee yàlla day ñaxtu ci cant ko la ñaxlu la ñaxtu déglul li yàlla wax wa xalilun min ibadiya shakur am déet wax feneen ni walakin aksara naasi laa yaskuruun bu fekkee yàlla da doon ñaxtu ci ñu sant ko la doon ñaxtu moom yàlla Cheikh Ahmadou Bamba def marsu marsub sant moom moom la yàlla ñaxtu moom la bëgg a fatt moom moom yàlla warta ñaxtu borom tuwaay yàlla warta ñaxtu moo tax mu ni koo xam ni sama mbég sa mbég la mu jot bii jotatee nanga ma ci sant la yàlla cant yàlla gi dem fii ba Europe nit ñi di fa dagge billet di dagge billet Amérique di ko dagge Asie di ko dagge Australie di ñëw di ko fekk ci barabam bii ndaje mi doon ndajam sant yàlla ba lislaam sosoo ba tey ndajam sant yàlla benn barab lay am Touba Mbacké am déet bis yi ko feelu mooy bis yii nga xam ne ñoo ko sponsorisé dox jëm ca bisi safar yii lii sëñ Abdou Lahad woote rekk ñoo feelu ndajem sant yàlla ma te sant yàlla la kat ñu dox jëm ca sëñ Touba rek ko am nag keneen amu ko feneen foo dégg ndajam sant yàlla waa kër borom Tuubaa ko woote te nag faskuruni askurukum waskuruli lu ci topp wala takfurun la in sakartum la azidannakum wala in kafartuma ci topp ndeke ku santul yàlla da nga koo weddi sëñ Tuubaa woote li gën fi jaamu yi mooy sant yàlla na nu yàlla may nu fekk ko at yu bare bare bare bare li ci sant alaaj Fallu Mbakke nag mi nga xam ni moo ko dajale ca Tuubaa waaw suñ mag bi ba mu ko diglee suñ mag bi ba mu ko diglee dani ku nekk fu la fekk na nga ko fa defee doon na yaatu lool ndax ñoo ngi koy def ba Amérique ba léegi di ko def ba France ba léegi di ko def Allemagne ba léegi bis bi fépp lañ ciy sant yàlla waaye nii muy mel ci Sénégal nag moom Alaaji Fallu Mbakke ca xel mu rafet ma ca xel mu sell ma ca bëgg lu baax la sëñ lu Mbakke ca mën a yaatal ga ca ñàkk ngott ga ca ñàkk xat ga mu wax nii nañ koy fekk fii mu nekk di ko fi defale ba tey jii mu mel nii mu mel moo tax mat baax na waaye bàyyi ginnaaw ku mat baax na màggal gii nu màggal bërki démb bu seex Moustapha manqué woon dara kenn du ko ma kenn du ko màggal bërki démboo Ndiaye Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim bu amoon cers ci manqué manqué kenn du màggal màggalu bërki démb gii waaye màggal gii nu jëm bu Alaaji Fallu manqué woon du am kon sëñ Tuubaa bàyyi na fi ñu mat sëkk ay borom Touba damay faral nag di wax samay waxtaan yu bari ni xam ngeen ni sëñ Touba du palmaan kenn baxasiku doomam waaw Cheikh Amadou Bamba du kenn baxasiku doomam te Cheikh Fallou ak Cheikh ñii ko njëkk a wuutu li yi daan jëf li murid yi daa jëf lañ daa jëf de ñoo murid jëfandoo bi ñu màggee ci kanami murid yi ñoo murid yee daa jëfandoo ci sëñ tubaa ba noppi ñu ñu ëppalee leen di doom moo tax Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim ak Cheikh Mouhamadou Fadal ay symbole lañu yoo xam ni ginnaaw borom Touba ñoom rekk mënoon a jiite yoon wi jiite yoon wi ci jamono boo xam ni say way jur Cheikh Moustapha euh, euh, défi bu metti la relevé dama koy faral di waxtaane su may waxtaane sëñ Modou Moustapha dama naan défi bi sëñ Modou Moustapha relevé moom mooy mag ñi fi sëñ Touba bàyyi woon moom bi muy dem kenn ku nekk dangaa naan ci moom loo xam ni góor mën a diis ci sa kanam Cheikh Moustapha problème boobu la amoon moom problème bi sëñ Mor Moustapha amoon moom mooy ñi mu fekk ñi nga xam ne ñoo njëkk a jébbalu ci moom moom moom ñooñu dañoo naan ci kiñ gisoon loo xamante si nii góor mënatul am ndam doo am jëmm ci seen kanam kuñ gisati aw fel nga parce que kiñ gisoon a tax Cheikh Moustapha maslaa ak ñoom ba sol leen ci menn bedd Cheikh Moustapha défi bu mag la relevé ne fi booba alaaji Mouhamadou Lamine Baara Falilu moo ko relevé waat parce que doomi Sëñ Tuubaa yee jeex mu solaat murit yëpp ci menn mbedd fu murit wootee alaaj ñëw looluy mbirum Sëñ du luy taxaw yàlla mi ko yor moo koy véhiculer di ko dundal waaw wax wa kulliyati yuhi yi jooju mu waxoon mooy dëgg kulliyati yi bi jaahi rasuulillaahi man nax uhyi dekkal gee ma dekkal mbirum ñool màkka moo tax sama mbir yépp yàlla da koy dékkal da koy dundal waaw parce que yàlla day fay te yàlla bu fayee sëñ tubaa ci rasuulullaahi rek sëñ tubaay man ci góor ñi bu ko fayee ci alxuraan kese kese kese sëñ tubaay man ci góor ñi bokkul ak xeeti jaamu yi nga xam ni da koo def ba noppi démystifier ko moom Cheikh Amadou Bamba am na xeeti jaamu yoo xam ni bi ko borom tubaa jëfee ba noppi da koo démystifier boolewu ko ci te genn góor fekk ko ci. waaw xoolal ni toog neexe sëñ tubaa jaay ko di cappanu rek lu dul jotaayu julli loolu fu mu toll da koo démystifier waaye kenn fekk ko ci. gaa yi gaa yi gaa yi sidit yi bañ xam nañ nu capp nu mel waaw mhm. waaw waaw dëgg la waaw waaw sëñ Aadama moo indi Seex Ibra ci saayir Seex moo indi Seex Ibra nga sëñ Seex Aadama daa gañe ñaar daa gañe ñaar bi mu njëkk a gañe mooy bi ma la waxoon léegi moo njëkk jox borom Touba boppam te jigadiwu ko bi mu joxee borom Touba boppam te jigadiwu ko ba noppi moom Seex Aadama mu amaat sansu indi ki nga xam ni moo wane nu nuy toppe borom Touba xam nga Seex moom fa mu xamee borom tubaa du àdduna Seex Rafaal ba muy xam borom tubaa nit ñi xewuñ nit amul Cheikh ba muy ànd ak borom Touba du tay am déet waaye loo gis am na sababu saayir bu fekkoon sababu saayir du am kenn du wax di way way juru borom tubaa borom tubaa du ko genn góor mën a doon kilifaam baa jigéen waaye sababu zahir day am nag bu sababu zahir du loon am kenn du wax suñ tubaa fii la jaar suñ Mbàkke moo rey way juróom ñii la bokkal bàyyi déedéet buñ demee ca dégg dëgg bokkul ak kenn dara waaye sababu zahir day am sababu zahir boobu moo waral ki war a dimbali jaam ñi tey ak ëllëg ndax moo leen di wan nu nuy toppe borom tubaa ba jariñu ci moom ku jariñooti ci borom Touba mu jël pourcentage am moom maam Cheikh Ibra Fall ki ko indi mooy Cheikh Adama xanaa Cheikh Adama gañe na ñaari yoon kon ci Cheikh Adama la maam Cheikh jaar yegg si ci Serigne tubaa ci Sahir loolu sensu Cheikh aadama la te kam ka jaar ci seex aadama ba mu yegsee la taal ba bërëx waaw seera faale ñëw taal bi bërëx nag kooku moo wane yoon wi moo waxoon layti ca ndar ba fa ba fa Julien François Léon Carde di jaabante ca Tassinère ca Gànjul foofa la seex sërif ganee jamono fa la seex Aliou Fall it ganee jamono waaw ba mu la neexee ma netti la ñaari gane jamono yëpp bu ci ne am na lu mu ci wax moom maam seex ca jotaay ba ba muy joxe tur wa bi mu tuddee seex sërif ba noppi li ma la wax léegi ni àndewul ak sëñ tubaa fii dañuy yàllaa yabal sëñ bamba yabal ma ngir ma wan leen nu nu koy topp nu ngeen koy toppe ñu dox ba tàbbi àjj na ma gis kii mooy ki mu tudd tey kat doomi soxna su si la rakki seex mu Moustapha Fall moom la tudd nee na ma gis kii mu rafet lool tëdd ci gàngu naayu wurus ma nuyu sëñ bamba nuyu ko jàll ma nuyu ko ni ko kii daa rafet damaa bëgg nu yóbbu ko mu ne ma dellu ko na ko jóge woon ma textaxaan ko ko laa ci def waaye ci laa ko fekk na lañ ko jëlee maag sëñ Bamba ñaari tudd yooyu tasineer la xewe beneen tudd ma Cheikh Aliou Fall Mbawar la fa tudd ba mu ko tuddee ba noppi ndax ndax xam ngeen ku ma ko tuddee ñu ni maam Cheikh bëgg nañ koo xam mu ni naa Seyduna yi laa ko tuddee karamallahu wajhahu ndax xam ngeen lu tax ma tudde ko ko ñu ni tekk maam seex ni dellu fa gone yi demutoon nag danoo xare ba dara ba noppi si maam Cheikh nee na foofu nag gone yi demuñu fa fekke wuñ ko moom bis waral yow xafara zunuba man xat xadara xitaaluhu rabbul wara kabiratan kalamami laxaasahu xayru sihaab fihi zawi dayri sihaab wahum maan xusnul xitaab za wurti faail ximami tanazanul mawta dañ doon opposé déegi ay opposant lañu woon ci njëkk a dee ñoom sahaaba yi tanazaul mawta maa wal kullu minhum sajua yabqi liqaa aw yusraa li hubbi maa il umami wa xaatalu man xad naahum safiu sufaa xata al ubaaru sataa bayna jabbaanin wa kami summa naha min assama qaylun wa jundun azuma ila raisi lkurama bisran bi xayri wa kami amadahu rabbul anam maam Cheikh ni danoo xare Badar ba noppi xare bi jeex ma mel ni kuy dallu Seydina Ali ëyuma ma xool ko mu ne ma ana yow a kan maam seex nee na ma ak sama loxob ndeyjoor bi mu gis ñu bind ci sama ron poqataan mi abu rijalullahi bàyyi góor ñuy fanaani ca yàlla mu fasanteeg man kóllëre ca tur woowa moo tax ma tudde ko Aliou sama doom ji dëkk ba mu defee ñaari tudd yooya dëkk booba la carte fekk ko gouverneur général bi nga xam ne ci maam seex la jaar mu bind lettre président France ñu indi sëñ Touba Sénégal mu ñibbisi mu koy defarlul baraak parce que tubaab bi daa mujjoon di weekend si ci maam seex Rafal saa bu samedi ci ngoon jotee mu ñëw gaaw ci ngoon ju jot mu ñëw tasineer jóge ndar xaritoog maam Cheikh maam Cheikh ak diplomatie bi ci bopp bi ak xam wàccuwaayu nasaraan bi booba baraak mooy karoy marbre yii maam Cheikh woo chef menuisier bu tudd Leyti mu ñëw mu ni ko damaa bëgg nga defaral ma devis pour defaral baraagu américain gouverneur mii di ñëw ci man layti jox maam Cheikh devis bi mu jox ko koppar yi ma mu dem ca américain ya moom layti jënd ko ñu jox ko remise ci xaalis mooy li wolof yi daa wax buuñaa layti ñëw ba ci maam Cheikh teg matériel bi jox maam Cheikh xaalis bi maam seex sotti ko fi kanamam ni ko layti lii lu mu doon mu ni ko lii mooy buuñaa faal tubaab bi ku jënd ci moom lu toll ni lii ma jënd ci moom dalay jox lii mooy buuñaa maam seex di xool remise bi ba mu yàgg mu ne ko ah léegi lii maa ko njëkk am tubaab bi fopp xanaa gisoo kajoor ak bawol ak siin ak saalum di màbb di yokk di wuy ji sëñ Bamba te ko dem jëfal ko mu ne ko waaw Fall mu ne ko ku ko jëfalati ba àddunay tukki ma am ci lii waaw kooku nag ki ko indi ci sëñ bi ku mu war a doon moo tax taw féexi Cheikh Adama Gueye la loolu noo ngi ziyaara sëtam bu baax bii di door a yegsi bokk ci njabootuk sëriñ Cheikh Khady Gueye moom seex Mouhamadou Moustapha Fall kii maamam góor la woon ca góor ña seex Moustapha góor la woon ca góor ña seex Moustapha Fall ba sëñ bés ma netti rekk benn xissa jox la rajo bi seex Moustapha daa def ci ndar lool doy na nu xam ni seex Rafal amatul góor noora woo ñëpp kilifay diine yi fi nekkoon yépp ak xalifa yi ñi jot a dem ñépp daje ci ndar Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké di dem booba suñ Touba dem na Cheikh Ibra Fall dem na Cheikh Moustapha Mbacké di dem ànd ak Cheikh Moustapha Fall yegg si nii Baye Fall def ci sëriñ bi seex Moustapha Fall def ko ca Cheikh Moustapha Mbacké tubaab yi concerté wu ba génn ñu génn waaye jigéeni tubaab ba génn maanaam sox jabaram jabari nasaraan bi góor nóor njëkk a génn ni sëriñ si range mu leen di topp di jox loxo kum yegg si ci yow loo doon doon kilifa ak lu sa diine sori sori bu nee saa loxo moom jigéen ji nga jël ñuy jël loxoom bi di jël loxoom bi di jël muy joxe loxo ñuy jël muy joxe loxo ñuy jël muy joxe loxo ñuy jël ba mu jub doomi borom seex Touba Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall maami kii ni bërët dogale sox jabari tubaab bi téye loxo bi ni ko kii doomi sëñ Bamba du nuyu jigéen man nag ab xajam laa mën naa laa nuyu jëlal dat koy dëpp te booba nit ku ñuul du xool tubaab xool bu dëgër hmm. ñu concerté wu wax ni médaille ba ñuy takkale belees lañ koy jëkk a góor góornóor ni tëll ci jotaay bi liir mbooloo mi seen Cheikh Moustapha Fall ca suufu Cheikh Modou Moustapha Mbacké mu ni c'est qui celui-là ki ci suuf lay laaj kum doon ñu ni ko c'est le fils de lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba Ibrahima Fall mu ni nañ concerté wu waat kooku kam toogal ci suuf la ñuy njëkk a takkal médaille waaw bi ma lay dolli ki nga xam ni mooy sama baay juruma may am caatam billahi wallahi wa rabbil kaabatil musarraf nee na ma man alaaji fàllu mbàkke ab sëfoor Cheikh Moustapha Fall ci oto bi ñu wuy ji Dakar sama baay nee na noo ngi mooy wax ak man ki ma jur laa wax waxuma papay kenn sama baay bi ma jur léegi ki ma du wuyu téléphone ci oto bi maak moom a bokk ndey ak bàyyi maami kii la ko sama bàyyi tudde te wax na ma li tax mu tudde ko ko Cheikh Moustapha Fall ca seen yoon woowa noo bokk ndey ak bàyyi muy sama mag maay ñetteelu tofoom ka topp ci moom maami ñang la ko tudde moom sama bàyyi ka ca topp seex Mor Taara la ko tudde maay caat mi borom daaru xafoor la ma tudde te sëñ Fallu Mbàkke mooy sëriñam waaye génnul Cheikh Rafal moom sama baay mu ni ma ci rang bi ma toog nii nit ñi toogee ci siis yi ci saal bi ñuy takkal lamin Gueye croix légion donoor sama baay nee na ma toog nii Cheikh Moustapha Fall féete ma biir ma féete ko yoon wi nee na sëñ Fallou ngi ca rang ba ca kanam sama baay nee na ñu def cérémonie bi ba noppi tubaab bi jóg jël médaille bi def nii costume lamin bi takk ko ci Lamine taxaw ñu tàccu lamin dellu toog nee na sama baay nee na ma Moustapha Fall ne ma Moustapha may ma ma ñëw nee na ma def nii mu jàll ci rang bi ndox ci couloir bi maam yi kiy toog sama bàyyi nee na may xool Cheikh Moustapha Fall fu mu jëm nee na mu waaxu ba ca piste ba waaxu ba ca Lamine ngay nee na ma dindiwul épingle bi dafa téye nii couloir légion d'honneur téye ko ba képp ko teg loxoom ci dëndu Lamine xëtt ko sim bi mu xëtt ci jotaayu tubaab bi Cheikh Moustapha Fall sama bàyyi nee na mu waaxu ba ci El Hadj Fallou Mbacke ko ko ni ko yow sa bàyyi def lu jar takk croix légion d'honneur sama may góor jërë jëf jërë jëf léegi la mel ni dañoo ragal nguur waaye ñee lu ñu ñun de bim ñëwee ci dëkk bi wax na ko kilifa yépp kenn kum ko ci wax itam am nga rafetlu nga xalaat boobu ba yàlla dogal lii am tey ñu mu andi fi nag mu andi fi sëñ Abdoulaat Guèye mii nga xam ne ku baax la ku sopp alxuraan la ku am ak taalibe la ndax lépp lu muy def itam ci taalibe rekk la koy wéer ak ndigal ndigal la ko fi indi ndigal lay jëfe kon foofu lañuy ñuy tàmbalee waxtaan wi ñoo ngi jéggalu nag ci kàddu itam lu ci dëng rekk ci man la ñoo ngi siyaar kilifaay diine yi fi teew yëpp ak kilifaay aada yëpp di leen dalal di leen dalal te di leen ñaanal jàmm aku yew lu ci dëng nag rek ci man la sëñ Abdoulaat ñoo ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal bu baax yàlla yàggal ko fi li muy def ci sunu njaboot gi lépp xam nañ ko te lépp nun la koy defal nun waa dëkk bi ak waa réew mi kon cant gun ko sant rek des na waaye noo koy sant di sant ay bokkam itam ndax bu ko fi kilifaam bàyyiwuloon kon du fi nekk kon noo koy sant sant gu wér goo xam ne am na tàmbali waaye amul yamuwaay di ziar waa dëkk bi ñëpp itam góor ak jigéen mag ndaw te di leen ñaanal jàmm ku yiw monsieur le maire ñoo ngi koy ziare bu baax a baax a baax taxawaayam gis nañ ko xam nañ ko te rafetlu nañ ko itam sunu waxee mu dégg xam nañ ko yàlla xam na bu nu waxul mu dégg xam nañ ko yàlla xam jëf ñoo ngi sant bu baax di ziar ñëpp alaaji basiiru li jara wax lépp lu ci bari wax ngeen ko mujj wax nag dafa jafe waaye ñoo ngi jéggalu de lépp lu ci dëng nañ ñu ko baal imaam yeeg kilifaay diine yeeg kilifaay aada yi yëpp bàyyiwuñu kenn ku lim juum noo ngi jéggalu nag bu baax a baax ci wax ji ndax wax dafa jafe lu ci dëng itam ngeen jéggal ma ko rek te yàlla tax wasalaam bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi sarh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax ne ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp xéewal ak jàmm di wax ne ñoo ngi ziare ñëpp kilifa yi fi toog yëpp daanaka bu suñu mag ñi waxee ba pare sax amuñu ci woon kàddu waaye dafa bokk ne mbir boo bokkee ci liggéey ba Ah, am nga ca gi am ci ab gis-gisit baax na nga koy leeral di ci waxtaan ak nit ñi ñu ngi sant ñëpp di sant waa daayira te bi ñi ma séqal liggéey bi ah, daayira bi bañ ko sosee ba léegi maa xale yi ñoo ci nekk ñu jiital ma jox ma seen kàddu ma nekk seen kanam ñu may jëfal may jëf di leen delloo kon maa ngi sant ñi ma séqal liggéey bi yëpp di sant suñ kilifa yi nga xam ne ñoom lañu nekkal ci dëkk bi Ah, ku lim na da ngay juum waaye xam nañ ñoom ñëpp taxawaay ñu ci taxaw ba ñun buñ manee dara ñoom ñoo tax di dellu sant itam jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñun muy mag ñeek ñu ndaw ñeeg jéeg ji ndaw jéeg ñëpp wax dëgg ka yàlla ñoom am nañ posté ci liggéey bi daanaka liggéey bi nag ñooñu gën a soññ sax nag ñoom liñ doon doon ay jigéen ñooñu gën a soññ ndax ren ku ne xam na dëkk bi ni mu demee àddina bi xaw naa metti waaye ñoom ñoo ñu ne daal moom fal fal su moom ñu ñu ñu sant ñun duñ sant di dellu ginnaaw na ngeen ci jàpp ñun taxaw nañ dinañ ko ànd ak sëñ bi liggéey bi bu ngeen ñu jàppalee yéen ñi di góor ñi ñu liggéey liggéey bi te noonu lañ ko defee wax dëkk si yàlla liñ doon seq ak ñoom ci wàllu cotisation joxe nañ ko ba mu mat sëkk lépp lu ñu leen laaj ci liggéey bi def nañ ko kenn ku ne xam nga coonaay kër yi ni méttee ku ne yaa ngi sa kër di sonn te teewul li nga war a def ak waa dëkk bi nga koy def ak ñoom kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Ah, mënuñu leen a lim nag ñoom ñëpp waaye xam naa ne ñu ngi ciy jiital seen njiit daal ba ci ki ci mujj amel nañ leen ngërëm loo xam ne ak cant goo xam ne nii mënuñu leen koo fay di wax ne ndax lii jafe na ah, dëkk yi ñu ko bëgg bëri na waaye xëy na ñoom nii ñu ci takkoo moom wax dëkk si yàlla seen ak pëstéef la di sant tamit ñi nga xam ne nii ñooy kilifaay dëkk bi ñu góor ñi lu ci mel ni chef de village mi ak sëñ Ibra Sey ah, buñ tuddee ñooñ rek daanaka tudd nañ ñëpp jéb jàllale nañ ñëpp mat na waaw kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm daal di wax ne xam bat bi ak temps bi dafa xat moom loole rek lañ ciy sànni kàddu di wax na daal daayira bi ñaanal leen ñu rek ah, niñ ko jàppe nii ngeen ñaanal ñu ñu gën a déggoo rek ba mën cee continuer incha allahu rabbi di gërëm tamit di sant autorités yi fi teew yëpp wax dëgg yàlla dale ko ci monsieur le maire ak ñi ñu gis te tudd te ñi ñu gisagut ak ñëpp ak du seen Fall ndax dañoo nekkan fii ci biti ñun ba moo tax waaye teewul buñ commencé liggéey bi ci guddi gi bu neexee yàlla ñëpp dinañ tudd seeni tur incha allah di leen ñaanal jàmm monsieur Pape Momar Ngom ñu ngi lay jaar di la ñaanal jàmm yaag sa ñi nga àndal ci liggéey bi gis nañ seen ab liggéey ci ñun ci dëkk bi gis nañ seen ab taxawaay ci ñun ci dëkk bi it wax dëgg si yàlla ah bu ñu gàttee xel sax dañu yaakaar ne xëy na ñun dëkk li ngeen ëmb yëpp muy 41 villages yëpp dafa mel ni daal dañuy jàpp ne ñun xëy na ñun ngeen sax gën a àndal buñ gàttan xel loolu la ñuy wax waaye xam na ne ni ngeen di doxe fii ni ngeen di doxe feneen ndax lu ngeen di yëngu it ñu ngi koy dégg ah, tey taxaw ngeen ci bu mat sëkk ñu ngi leen di ñaanal xéewal ak seen liggéey bi ngeen sumb lu ngeen ci bëgg rek suñ borom tabaraka wa taala defal leen ko jërë ngeen jëf maa ngi gàttal foofu wax yi jërë ngeen jëf Adama Gueye bis bi dafa nekk bis bu kéemaane ndax dafa nekk bis bu ak taalu bi ak booloo muy bis bii ñu def fekk si ko sëriñ Abdoulaat Gueye mu baax mii nuy ñaanal sëriñ jiili tàmbale ci waarawee sëriñ Moustapha yal na yàlla dolli ko tawféex ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ Moustapha Gueye yeewaay mu ànd koog bokki mbaabu yépp ci sayr ak ci baatin ndax bis bi safar ñoom ñii dafa aman daayira boo xam ne soxna Nogaye Sarr la waa mbari doon may bis ginnaaw tabaski ñu di ko def ba mu guddi ñu mujj jàpp ca waa dëkk bi jàpp ca di ca jàpp waaye bi sëñ saaliw bi sëñ abdulaat mii dikkee fekk ñoom ñii at mu ne danañ yónnee ab lim ci dëkk bi ñu def safar waaye dañuy toggi reer rek xiwloo ko ñibbi waaye suñu ci jógee ah ba déwénati ñu def loolu bi sëñ laat dikkee nag ñu daldi di nekkoon safar gi ak bis biñ doon def ginnaaw tabaski lépp nañ ko yóbbu ci safar gi ànd ko sëriñ Abdou Lahat muy benn bis ñu di ci cité nag ki nga xam ne mooy taay bajaan nga xam ne ci ñi leen jàppale la su ma yóbbu ne ci dëkk bi la dëkk waaye lu euh, ngaraaf gee la dëkk waaye lu ñuy cotiser ak lu ñuy def ak luy nas ak luy nucc ci loxoom lay jaar loolu it jar naa xamal waa tund wi kon noo ngi leen di ñaanal taw feex di la xamal ne la nag sëriñ bi forte délégation bi maire am des na ko wax waa Modou Sène Fall it ànd naag forte de délégation bu jëlee kàddu bu soobee yàlla dana ko dana ko wax nga xam ne it mi ngi taxaw bu baax a baax ndax jëf na ci daara ji jëf joo xam ne taw féexulaa di la bërki démb rek indi na fi ay garab pour jox ko sëriñ bi kon loole mi ngi jàpp ci eh, liggéey bi waaye mi ngi lay jàppale ci commune bi pour lu koy lu koy gën a jëme ndax lu ñu def ci daara yi li nga ci yéene mi ngi ciy góorgóorlu li mu man di la ci jàppale kon maa ngi lay xamaloon di ko ñaanal tawféex ak ñi mu àndal tey ñaan li ngeen jublu ci lu baax yàlla na ko yàlla yoon teg seriñ Touba ak barke sëriñ aadama defal ci barke sëriñ Muntaxa xam naa kon dañuy jàll ci sëriñ Abdou Khader Fall mi nga xam ne tey toog na fi toogaay yu bari waaye nag daayira Touba Polégue bii nga xam ne dëkk yi yëpp ñoo ko bokk te sees ba mu nekk ca njaar ga Polégue alaaji sëriñ fay di jawriñ jë ànd koog imaam badu ngom ñoom ak kilifa yi yëpp sëriñ Ibra Sëy mii toog bokk ci kilifa yi liggéey bi kon sëriñ uh, Abdou Khader bisimilaay kàddu gaa ngi noonu salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi maa ngi nuyu ñépp di siyaare ñépp di jiital ci nuyoo bi siyaar bi nag suñuy kilifa yi fi toog tey njabootu Serigne Touba di leen jéglu bu baax tamit ci fii ñu toog nga xam ne yellul njabootu Serigne Touba toog ñu toogandoo ñun ci kaw noonu daa mel ni sëñ Blaat moom yaa ma dugal ci waaye maa ngi koy tuub te di ko jégalu bu baax a baax gis na ci man lool maa koy tuub te di ko jégalu bu baax di siyaare ñëpp di tàmbali nuyoo bi ak siyaar bi ci njabootu Serigne Touba gi fi nekk di leen jox seen wàccuwaay wi leen su borom jox di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér <coughs> ak yokk gu ànd ak mucc. di am mbégte ak kontaan bu baax a baax kàddu yi sax xam naa ne bu fekkoon ne bàyyi sëriñ dafay nekk wala signal yu xam naa moo koy jàllale waaye ginnaaw ñoom yàlla dogal ñu am ngànt ba teewuñu faaw ñu jéem jee nam na bi jéem jee góorgóorlu rek jéem koo jàllale jàllale waale ko mboolem waa Poolé gépp ndax mbooloo mi teew si tey jii te teew si fii ci Touba Ndoukoumane pool lañ teew sil pool lañ ñëwal itam kon loolu ñu ci am ngoon euh, mbégte ak kontaante bu baax a baax di ko wax ci turu daayira Touba pool waaye ak mboolem pool gépp rek di leen xamal ne <clears throat> ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax di sant yàlla bu baax ci bis bii nga xamante ne nii Cheikh Abdoul Ahad la ko def fii te ànd ko waa dëkk bi tam dëppoo ndigalul sëriñ bi ndax yaa naa kenn ñun wute ñu xam na ne sëriñ bi moo digle ne bisu màggal gi bu ñëwee képp koo xamante ne sama mbégte sa mbégte la nanga ma ci sant yàlla ci jàng alxuraanul karim ak jàng xasida ak bernde kon nag bu bis boobu jubsee yàlla dogal mu def lu mel nii te ànd ko waa dëkk bi di ko fàttali nit ñi di ko fàttali ni ko sëriñ bi digle woon ah, te jox ñu cër boo xamante ne ni xamoon nañ ko suñu bopp jàppoon nañ ko suñu bopp ñi xam suñu duggante tamit xam nañ ko te jàpp nañ ko loolu duñu am loolu am mbégte ak kontaante wax ji dana xaw a jafe lool waaye ñu jéem cee nam na bi rek ngir feeñal suñu mbégte ak suñu kontaante di leen xamal ne bis bii sëñ Abdou Lahad wootee ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ko ci santal yàlla te fas yéene tamit mu jokk mu jokkaloo ba egg ci ni ko sëriñ bi diglee kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan rek lépp loo xamante ne nii jëf nañ ko ci ci aw yiw ndax ci suba gi ubbee nañ ko njàngam alxuraanul karim jàng fi ay xasida fi salaatu ala nabi ci lépp suñu gamtulaay kàttan lin man kon loolu lépp yàlla nañ ko suñu borom boole nagul te defoon na ko ma ay xéewal sotti ko ci ñi teew ci jotaay bi ak ñi amoon yéene teew te teewuñu waaye mu sotti ko tund wi itam ba jàll ci Sénégal gépp a jàll ci àdduna bépp loolu ñu ngi ko ñaan su borom mën na ko yal nañu ko borom boole yal nañu ko borom boole defal di def ay seere rek ci mbokk yi nga xam dañu fay teew te bàyyi ko ci xelifab Cheikh Adama te bokk ak Sëñ Abdou lépp ñu leen di seeral ne di leen di wax na yi tamit day sëñ Abdou Lahad yi diir bi mu fi ñëwee ba léegi li mu fi nekkee nekkin wu rafet la doxin wu rafet la jëfin wu rafet la loolu rek lañ gis gisaguñ lenn lu wuuteeg loolu te it xam naa ne buñ gisoon lu wuuteeg loolu euh, ñun bokk na ñi njëkk jóg saafara lool waaye nag gisaguñ wenn doxalin wu wuuteeg wi ab taali bi war a dox wi ab ku teewal sëriñ bi ci barab war a dox loolu rek lañ gis muy dox ñoom loolu ñu ngi leen koy seeral baax a baax di ñaan nag ngeen bokk ñu ñaanal loolu su borom saxal ko te sàmmal lu ko baax a baax ndax sunu sagle itam ku sañoon kat bu ñu tuddee sa mbokk tudd ko ci lu baax lu ñëpp mën a roy ku sañoon suñ tuddee sa xarit tudd ko ci lu baax lu ñëpp mën a roy ku sañoon suñ tuddee sa àndandoo tudd ko ci lu baax lu ñëpp mën a roy loolu lépp na yàlla ngi yàllaa ngi ñu suturaal ba liñ ci weesoogun lépp rafet na li jëm suñ kanam lépp yàlla na ko suñu borom nga rafetala waaye lu ñu ngi leen seeral daal li liñ gisagun ci moom lépp mu di ko dox lu baax la lu rafet la loolu nag ñu am ti mbig am ti kontaan bu baax a baax ndax su suñu yëkkatee nuyu ci barab bi ci tund wi ngir ñu yaatal fi lu baax li nga xam ne mag ñi dañ koo sosoon buñ gisee ku ñëw jàppale ñu ci yaatal googee mbégte ak kontaan rek lañ ci am kon nag yàlla nañu suñu borom boole jàppale bu yaatal googu mu mën a wéy ba faw kon loolu ñu ngi ciy sant di ci gërëm bu baax a baax mu soññ tamit waa dëkk bi ngir li ñuy wax ne kat am ko te xamoo ko bañoon koo am da koy gën kon loolu yaakaar naa wax naa leen ko waxati leen ko waxati leen ko mbir su la ko yàlla dénkee mooy lu baax loo xamante ne njariñ la loo xam ne kon mën na caa jariñu da ngay yem ca wax ko kese waaye da nga boole di ko jëfe te lépp loo jëf nga def ko te yàlla tax soññe yooyu nag ak sant yooyu cant gi sax ñuy jiital sëñ jili mee nga xamante ni yàlla dogal na daara ji ci moom la sosoo mu wëlbati ko yëkkati ko teg ko ci loxoy sëñ Abdou Lahad kon loolu waa dëkk bi laa ciy soññ rek waxoon naa ko ci bëccëg defe naa euh, ku ne xam ne ni ni ñuy tàggee daara ci tund wi ci taxawaay yu mu am ci njariñ lu mu am ci njariñ loo xam ne ñun ñi ñooy waxal seen bopp na ñu ngi ciy jariñu loo xamante ne yaa waxal sa bopp na yaa ciy jariñu nag wax dëgg yàlla war ngaa def sa kemtulaay kàttan def sa lu fexe bay jariñ loolu itam lu ci am solo lu mat a bàyyi xel la kon loolu bàyyi leen ci xel bu baax benn benn sëriñ daara nag boo xamante ne ndax xam naa ne dana am ñoo xam ne sax dañ jàpp ne li ma doon sëriñ daara tax ma di ko wax waaye benn sëriñ daara boo xamante ne nii tey aj na lennam ci doomu aadama yi ci loo xamante ne da ko caa def ne bu mun bu mu ko deful du taay ma ne du teew ma dem loolu amut waaye nag dama leen bëggal njariñ rek ah, lenn loo xamante ne yéen a ngi koy jëf te lu lu lu loo xamante ne taxawal daara da koo gën a yell wala jàppale daara wala dimbali daara man jàpp ma ne am na ci sama xam-xam bu gàtt kon nag jàpp leen ci daara ji te fonk ko te téye ko bu baax a baax fexe ba lépp luy tax mu ndox ngeen def ci seen kemtulaay kàttan lépp luy tax mu yokk ngeen def ci seen kemtulaay kàttan loolu tamit maa ngi koy lawal ci fépp fu daara nekk rek loolu ñu <clears throat> nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di ko nettalee ni ñu ciy jariñoo daal te ku ne yéen a waxal seen bopp toujours ngeen wax ko fexe leen yéen ba li leen li leen daara di jariñ ngeen fexe bay jariñ daara ji lu toll noonu mbaa lu ko ëpp loolu bu dee maa ngi leen koy soññ te di leen ko yolaan bu baax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax lii des tamit ñu ngi sant mbooleem koo xamante ne rek teew nga ci bis bi di ko tàmbali suñ kilifa yi ni ma ko waxee woon sëriñ bi ñu ngi xam ne eh, seen teewaay am nañ ci mbégte am nañ ci kontaante bu baax a baax ndax kat sooy wootee bis say kilifa bàyyi seen te ñëw teew si loolu ab sag la ab soñu la itam kon loolu mbàkk ñu ngi leen ci sant bu baax a baax waaye ñuy sant tamit kilifa yi yi nga xamante ne dañ fay teew bu ñu mel ne monsieur le maire di rafetlu ab toxawaayam di ko ñaanal eh, suñu borom defal ko tawfeex ak taysir mooy Pam Momar Ngom ak mboole ñu ànd liggéey bi ñëpp eh, gis nañ taxawaay yëpp ñu ñaan mébét mi ak lu baax lépp yàlla na suñu borom jàppale ba nga mën koo àggal fi kawe sa waaye ñu ngi nuyu tamit Modou seen Fall moom it ab taxawaayam rafet loolu ci dund wi te yàgg rafet di rafet ba nëgëne ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal moom it lii yéeneem ak ak bëggam lépp na ko ci suñu borom defal lu kawe njortam ak mboolem koo xamante ne da nga fee teew rek te xëy na ràññeewul la bëseen la waaye ñu ngi lay nuyu di la sant bu baax a baax loolu lépp na ñu koy defal seen laat ñu ngi leen koy santal di leen ko gërëmal bu baax a baax xam naa am na yéene wax loolu xëy na bu jëlee dana ko mottali waaye ko ñu tàmbalil ko ci loolu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen dalal jàmm di wax ne eh, képp koo xamante ne indi nga fay aajo rek yal na ko suñu saafaraal eh, képp ku fi indi woon njàqare tamit yal nañ ko suñu borom saafaraal yal nañu yàlla dimbali nag ba lii sëriñ bi bëgg ci bisam bi ñun ñu bokk ci ñi koy amal ne faaw dana am dina mel ni mu ni mu ni mu war a amee lii ñu dëgmal fi ne ak nawet bi ak ndox meeg jafe-jafe yi àdduna yi ñu jàpp ne màggal gi mën naa demee neneen tey lay dàq tey lay lay tey lay gën na meloon fuuf xanaa kay ñu yàlla dimbali ñu ban bokk ñiy tax loolu mën a am rek waaye man amul benn sikki sàkk ci ne tey lay dàq tey lay gën ni mu daan mel naan du demee du demee nii dana méttee dana mett yàccaaral ba bokkoo ci ne yàlla nañu ci yàlla musal moom waaye xam naa moom dana dàq nu mel na mu daan mel moom kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ñun bokk ci ban bokk ñiy tax mën a am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu suñu borom bore defal tawfiix tey taysir ak yokk bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen siyaar te nag di leen baal xaq bu baax te sàkku yi di ngeen baal ñu ko di jégalu lu baax ci kàddu yi les kàddu yu ndigal rek sëriñ bi dafa waxoon ne ñu limal ko mbooleem délégation yi fi teew limal ko mboolem délégation yi fi teew kon nag ñu jéem rek ci li wadd ci suñu xel xam ne képp koo xam ne yàlla dogal na déggoo surde xamal ne mat doomu aadama la waaye amoon na yéene lim ñi fi teew ñëpp donte yombul dafa waxoon ne waa kër sëriñ bi mag bi kenn desut ndax sëriñ ji li mbàkke ngaabu teewal na fi ak ak ak sëriñ soxaay bu mbàkke teewal na fi njabootu sëriñ bi mag bi yëpp kon ñu ngi leen sant bu baax ci teewaay bi day sant bu baax sëriñ Pape Momar Ngom di maire Ngogom sëñ Pape Momar Ngom di ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay bi te di ko sant bopp ndax dafa ñëw ba Daaru Gee wër kuñ yenn fa ak sëñ bi ba ngoon ak kër Cheikh sëñ Mbagay Jama jën fa doon moo barkeelu fa ànd ak ñoom liggéey ba ba fa mu toll kon sëñ Pape Momar Ngom ñu ngi lay nuyu te di la jotli cantuk sëriñ bi ndax amuñu lu sëriñ bi képp koo jëfal ñu fonk la suñ kem laay kàttan ku ko jëfal na xamuñu ci yow dara sëñ Modou Sini Fall euh, sëñ Modou Sini Fall nekk sëñ Modou Seen Fall nekk directeur école Ngogom ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay bi di wax ne sëriñ aadama Guèye moom sëñ Moustapha Guèye Waalo moom sëñ Moustapha Guèye waaye teew na fi ak sëriñ Bàkki Soxna Lo moom sëñ Moustapha Guèye Jëmwéri teew na fi sëriñ Sidi Guèye Naar moom sëñ Bassirou Guèye wër ko ñu teew na fi sëriñ Bachirou Guèye moom sëriñ Moustapha Guèye Mariama Kunta teew na fi sëriñ Maam Cheikh Guèye euh, teewal fii njabootu sëriñ Cheikh Fall Guèye yëpp bi jóge ci xar bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax sëriñ Maam Cheikh Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ak moom sëriñ Mabaabu Guèye Malick Maas ñu ngi koy nuyu baax ci teewaay bi ak sëriñ Aliou Guèye moom sëriñ Moustapha Guèye Jëmbeli ak sëriñ Modou Boussa Guèye moom sëriñ Modou géey ak sëriñ Muntaxa Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ak sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ Modou Guèye ak sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ Gora Guèye Thiès sëriñ Modou Guèye laa bëgg a wax sëriñ Modou Guèye boobu maraiché moom sëriñ Modou Guèye moom sëriñ Gora Guèye Thiès ak sëriñ Abdou Samad Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ak soxna Ami Guèye Thiat soxna Ami Guèye Thiat moom sëriñ Bassirou Guèye wërguñ teewoon na bi ci suba ak sëriñ Cheikh Mbacke Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ak sëriñ Birane Diaw ak soxna Diaw Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ak soxna Ndiawa Guèye moom sëriñ Cheikh Fall Guèye ba tey ci teewaay bi sëriñ Moustapha moom sëriñ Daam di lépp ci kër gi mi ngi ci teewaay bi ak sëriñ Maxtaar Dem euh, Njaareem ak sëñ Fàllu Njaay moom sëriñ Daam Njaay sëñ Abdou Moussa Njaay teew na fi ak sëñ Fàllu Njaay sëñ Xaadir Fall mi suñu wet moom sëñ Cheikh Fall Xadigee ak sëñ Mor Ñang sëñ Mor Jeng sëñ Mor Jeng sëñ Mor gi Jeng Njargalambay teew na fi ak sëriñ Bàcc Juuf ca Njuufeen waaw ba tey ci teewaay bi sëriñ Góora Gueye teew na fi ak sëriñ Seexuna Njaay ak sëriñ Amadou Sarr moom soxna Ken Gueye Mbuur ak sëñ Maam Mbay Fallu Yaasin Njaay Mbexe ak sëñ Bada Ndiir Mbusa ak sëñ Mbàkke Njaay Mari ak sëriñ Xaadim Njaay Mari Daaru sëñ Aliou Diouf teew na fi Mbaaga sëñ Aliou Diouf Baaga teew na fi ak sëñ Ilimaan eh, sëñ sëñ Ilimaan Jegg sëñ Ilimaan Jeng xel gi teew na fi ak Baye Sëriñ Sarr Midina Sarr ak soon Aysatu Njaay Cerno Mari daro ñuy teewal ci communication bi IYA TV moom moo koy jàllale ak rajo eh, Ndangal ma FM waaw ak Serigne Seexu naa njaay ñooñu lañ fi gisagun ci délégation yi fi teew kon nag suñu Abdou Lahad Guèye nee mi ngi sant mboolem ñu fi teew wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë kilifa diine fi teew yëpp di ko jaaree seen Jili Mbàkke ak seen soy bu Mbàkke ñu jàlle ko ci kilifa yëpp di nuyu kilifa aada yi monsieur le maire ak ñi ngi ko seqal ñëpp chef de village yi ak conseil conseil municipaux yi nga xam ne ñu fi teew di nuyu bu baax a baax sëñ Abdoulaat Guèye ak ñim ko seqal ñëpp njabootu maam Adama Guèye yépp maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu baax a baax a baax comme mbégte yi ñu amoon daaw ci teew bi ñu teew fii si Touba Ndoukoumane ma ànd ci ak sëñ usmaan Dieng sëñ Maguette seen sëñ Njaw Jeng sëñ Pap Fall ñu ñaw fii bokk yéen bis bi comme ni ñu daan defee euh, mbégte bi ñu am nag euh, mbégte bu kawe la ndax ku ñëw fii ci bis bi di nga xam ne Touba Ndukumaan ànd nañ ak sëñ Abdou Lahad taxawal seen kër sëñ Touba kër sëñ Touba nag ku ko wax di nga ne barab bu ñuy jàngee xasida barab bu ñuy jàngee alxuraan mais barab boo xam ne bu fa gan ñëwee du tumuranke te loolu moo am fii ci Touba Ndoukoumane loolu nag pas-pas rek moo koy joxe pas-pas bi ngeen am ànd ci ak président daayira bi sëñ Mbay pas-pas boobu moo taxawal tey bis bi pas-pas bi moo taxawal kër gi nga xam ne mooy kër sëñ Touba gi nga xam ne moom lañ daje tey pour defar cant gi nga xamante nii ah bi mooy ñetteel bi yoon ñu def ko fii si kër sëñ Touba gi yàlla may ñu chance ñu koy fekkee bokk ak kilifa yu tedd yi fi nekk macha allah ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant sëñ abdulaat ak pas-pas bi nga xamante nii moom la wone ci bis bi ba tey ku ñëw xam ne bis bi kat kilifa yu bari ñëw nañ ci bis bi kon loolu nag ak cant la ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax di ñaan waa waa daayira bi di leen ñaanal yàlla yokk leen ba mébét yi ñu am ak yéene bi ñu am pour dundal kër sëñ Touba yi pour dundal dëkk bi pour dundal gox bi ndax tey liñ fi ñaan ci alxuraan jàng ko fi alxuraan ak xasida mën na defar commune bi mais mën na defar département mën na defar Sénégal yëpp kon ñu ngi sant ñëpp duñu guddal di ñaan yàlla ñu yàgg koy fekkee te bis bi ñu ko fekkee rek ñu tal ko te lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ko kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi daaneel suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf jërëjëf Cheikh Bachir aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yaqfu qawli mbooloo mi ñu ngi leen ni nuyu euh, ku si nekk sa tuur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen sargal di jiital lool nag nuyoo ak ziar bi suñu sëriñ muy sëñ Jili Mbàkke euh, nga xam ne moo fi Cheikhul xaddim ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di am mbegte lool xamante bi nga xam ne xam nañ ko tey nii ñu ngi fasante ak moom kóllëre ñu ngi nuyu njabootu Cheikh muy sëñ Abdou Khader nga xam ne dafa féete ak ñun di ñu jàppale ci njaboot gi walla ñun ñu koy jàppale ci njaboot gi parce que njaboot gi seen loxo la nekk ñu ngi koy nuyu bu baax di ko màggal di ko ziar di nuyu njabootu Cheikh Ibra yëpp di nuyu njabootu suñu aadama Guèye di ko jaarale si suñu soppee suñu xarit muy sëñ jiili nga xam ne yàlla moo def ñu bi ñu gisante rek ñu am cofeel si moom booboog léegi nag ñu koy doxal eh, di rafetlu nag liggéeyam bu baax a baax a baax si moom rek la ñuy jaare rek nuyu njaboot gi yëpp nga xam nañ bëri nañ si ay xarit dem nañ ba jàpp naa ne li ma am si xarit si njabootu maam aadama def naa li ma ko am si kay ay kër bëriwul te li ko waral mooy moom ak sëñ Abdou kon mbégte bu baax a baax si ñun dañuy nuyu balaa ngi ñëw sax sëñ Abdou di nuyu chef de village nga xam ne moo ñu dalal fii ndax moo fi autorité administrative di nuyu imam di nuyu waa dëkk bi yëpp waa Ndoukoumane di nuyu waa daayira bi di ko jaarale suñu xarit suñu soppe mbay sëy ak jëwriñu jigéen yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ñu ngi nuyu mut seen Fall di ko sant bu baax a baax ndax ñetti at yi fi am yëpp ñoo ñoo ko bokk sa budul fii tamit dañuy daje feneen fi nga xam ne euh, askan wi ñooy woote mu taxaw te saa bu ñu bu ñuy wax ci moom ci taxawaay bu rafet rek la ñuy wax ci moom ñun tam ñu seere ko euh, mu nekk directeur école bi nga xam ne moo nekk ci biir ngoogom jàngal na sama doom wax naa ko fi benn jour premier bis bi donc ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yoonam yàlla na ko suñu borom leeral eh, li muy wut suñu borom may ko ko di nuyu ki fi représenté Djib Thiaw suñu xarit la nga nuyul ñu ko bu baax a baax eh, am nañ mbégte lool dégg ko ne moom yable na fii hmm? Mout Sar Ngom waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la yóbbante nuyu suñu xarit Jibril sànq rek woo na ma téléphone eh, dina ma dama laa gëj a dégg rek ziar ñu ngi koy sant di am mbégte xam ne am na ay relation yu mu am ak sëñ Abdou donc ñu ngi koy nuyu baax di nuyu maire sortant nga xam ne yabla na fi ñu ngi koy yóbbante nuyoo tamit bu baax di ko sant tamit si taxawaay bi di nuyu sëñ Abdou di ko ziar di ko sant ndax mun naa ne ñaan sax laa war a def sa moom ndax man ak moom dañoo dem ba jàppanteerutuñu sëriñ ak taalibe wala xarit mais dañoo mel ne ku bokk ndey ak baay loolu manjaay bii nga xam ñoo nekk tout le temps seere nag mun na ko seere mais su demee bañ egg foofu si moom la si mbaaxam la si yitteem la si yéeneem la si ñun mais mun naa ne sax du si man kon dañ koy sant bu baax a baax sëñ Abdou Samad wax na sànq bis bi ñu yendoo fële dëkk ba wax dëgg yàlla yéene bu kawee rek moo tax mu def ko yendoog ñun ba guddi te bi ñu jógee foofu yóbbu nañu ay yeneen bërëb pour rek ñu am fa njariñ dem nañ suñ Fall def naa suñ Fall bu yóbbu nañu fa ñu bernde ñu foofu yóbbu ñu bërëb bi nga xam ne fi la yonent bi seet si woon Cheikhul Khadim ñu dugal ñu fa ñun kese tëj ñu fa loolu ku la ko defal amatoo payam yàgg nañ si yoon wi yàgg nañu dem Diourbel yàgg nañu dem Touba wante loolu ñu am bu ñu ko amee moom mi moo tax jóge na fii tamit ñëw ba Dakar dellusiwaat pour sama yitte kese taal oto dem ba foofu ñu dox yite bi mu dellusiwaat loolu ku sorewul ak yow du ko def te sama dërëm yëkkatu moo jox ko na yàlla kon man mënuma ko fay li ma yéene sama bopp moom li ma yéene sax moom man jàpp naa ne moo ëpp di ko ñaanal suñu borom. gën ko dëgëral ba kilifaam yi di gën di am fierté si moom sëñ ji dama ko nuyu rek mu ne ma sëñ Abdoulaye ku baax la ndax ñii ñëpp fu sori la ñu jóge man mii mbuur laa jóge am na ñu jóge Dakar am na ñu jóge fu sori ndax moom baaxam la moom mii léegi la ma ko wax ma ma dëggal loolu xam naa ne su may wax si moom sax day mel day nuur leneen wante eh, am naa mbégte bu mag a mag si moom si xam bi ma xamante ak moom mais dañ koy sant itam seen jiiri nga xam ne moom moo tax mu ñëw fii di ko sante chef de village di ko sant eh, sëñ Dieng nga xam ne ñoo tax ba lii lépp am sant suñu borom bu baax a baax di ñaan bis bii nga xam ne mu ngi yokk parce que bi ñu fi njëkk a ñëw bi ñu fi ñëwaat ak tey wute na gis nañ ne mi ngi jëm kanam te day gën a jëm kanam sax ndax xol bu mu koy defee ak yéene bu mu koy defee yéene bu mu yéenee population ndukkumaan mais population ngoogam moom moo tax muy yokkee noonu kon waa ndukkumaan waa ngoogam amuñu fayam xanaa lu dul di ko ñaanal ndukkumaan moom comme ni ko Ibra euh, Mbay Sey waxee rek il faut mu demee noonu ndax li tax li ma boole ak ndukkumaan dafa bëri sëñ Abdoulaye laa mujje parce que moom moo yàggul wante soriwaay bi tamit leeral naa ko wante euh, Basirou Bey wax na sama sama adjoint ki topp si man direct fii la cosaanoo muy Xadi Fay mu ngi nele toog mbay sëy bii nga xam ne moo jiite daayira bi sama xarit la si ñu jàpp ba ma nekk maire bokk na si Basirou bi muy wax délégation yi maa ne ko dolli si Moustapha Bey nga xam ne vraiment lépp sëñ ab Lahad la di ay tànkam di ko doxal gis taxawaayam bi nga xam ne am na ko suñu wet si lii nga xam ne sos nañ ko muy parti politique bi nga xam ne teg nañ ko dama ko fi wax ndax moom yéene nañu lu ëpp loolu te fii biñ fiy njëkk a ñëw nekk ñu woon maire ñu wax fi ñaan fi suñu borom faj suñu aajo donc bu ñu fi ñëwaatee am lu ñuy mbëbët nga xam ne jàpp naa ne buy xew bis bi du ñëwaat aaju nañu wax wax ko suñu su wax ko fi parce que am fi yaakaar mooy parti politique bi dañ ko teg dañ ko sos tuddee ko joyante Sénégal nga xam ne maa ngi koy wax sañ jiili léegi dañu bëgg teg politique wala programme yi nga xam ne dañ koy sukkandiku ci jàngale mag ñi parce que gis nañ Sénégal depuis bi ñu amee indépendance ñu ngi wut ay solution pour régler suñu ay problème mais solution yëpp dañ koy jéggaani système bu fi mën sa nekk système bu ñu jëlee bitim réew la te boobu yëpp nag fekk ñun ñi nga am ay systèmes yi nga xam ne ñi ngi fi suñu ay mag jàngal ñu ko jëfe ko ñu gis ko lu mën a doxal réew ñu bàyyi ko fi dem wuti leneen ñu nag ñu jàpp ne jot na pour ñu defar suñu réew sukkandiku si loolu parti bi loolu rek lay lay boobu lay doxal élection yii di ñëw présidentielle yi ñu fas yéene samp suñu ndënd di sàkku ñaan kilifa yi fi nekk yépp ndax jàpp nañ ne sénégalais lañ comme ñëpp ñi fi samp seen dënd gënuñ ñoo nekk sénégalais fi lañ juddoo jàngee fi comme ñoom liggéey fi am fi expérience def fi li nga xam ne peut-être ñu am na ñu nga xam ñu bari ñu ngi woote sax defuñu ko siri sana si réew mi jàpp tamit am nañ gis-gis bi nga xam ne gisuñu ko ñoom ñu wone ko ñu jàppale tamit ne am nañ ay mbokk donc jaaru na ñu laaj réew mi donc dañuy fas yéene teg bokk ci élection yii di ñëw di ñaan ñëpp ñu jàppale ñu ci ñaanal ñu ci ci bis bu màgg bi itam ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax duñu guddal trop foofu la ñuy wàccee suñu ay kàddu di sant ñëpp rek képp ku ñu tuddul rek tudd nañ la suñu xol ziar nañ la di ñaan bis bi tamit ñu koy def ay ati ati ati at saa su ne rek muy gën a jëm kanam ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ak mboolem taalibe yi àndal liggéeyam Cheikh Ahmadou Bamba di jël ab nuyoo bu tedd di teg ci kilifa yi nga xamante ne ñooy njabootu Serigne Touba gi toog fii jotaay bi di leen nuyu te di leen siyaare bu baax te di leen jox wàccuwaay wu mat sëkk tey tuub it kaddu yi ndax wax dafa jafe surtout waxal ku baax surtout waxal waxal nit ku baax lu baax kon dañ koy jégglu rek di am yéene lépp loo xamante ni rek jubluwaay bu baax buñ ci am rek suñu borom jàppandal ko bi jeexi Seydina Muhammad di siyaare bu baax kilifa yi fi nekk di ji cité sëriñ Abdul Xaadar Male ndax moom mëneesu koo ñàkk njëkk a tudd ndax xam naa ko lu jiitu ma di ko gis loolu nag su ma ko waxee dana yomba a gëm ndax diggante seex aadama Gueye ak Cheikh Ibrahima Fall Lamp képp ku dagg gàdd ci ñoom seen pas-pas ba lu mu néew néew néew li ñu fi bàyyi woon fonkoon ko bëgg ko di ko sàmm loo ca man danga ko ci def te loolu lañ xam ci yow Fall ndax Cheikh Abdoulaye seedeen nañ ci yow ay jukko yu bare bare ndax defuloo kenn sa bopp ngay defal ndax yéen a bokk wenn wayju ndax Cheikh Adama ak Cheikh Ibrahima Fall sunu borom moo leen boole ak Cheikh Ahmadou Bamba kon ànd ak moom ci lu mel nii fal loolu rek moo mën a am kon noo ngi lay siyaare bu baax di siyaare monsieur le maire di ko nuyu bu baax euh, di ko ñaanal tamit sunu borom subhaanahu wa yàlla defal ko tawféex ci li muy wut ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha mu baax mi day ay waxam des ci jàng lu bari ndax day wax ne ngor ba ngor jeex nee na bañ a des ginnaaw rekk la waaye nag nee na dañ nga jaay ko sunu boroom nga jaay ko yàlla yow day su fekkee da ngay wut yàlla da ngay wut lu baax di wut ci dara ci réew mi vision bi nga gën a am mooy tàmbalee ko ci diine waaye nag jiital ko ci mag ñi nga xamante ne ñoo taw wen dina rawatina waa kër Cheikh Ahmadou Bamba booy woo nga xam ne na sa xel dal man de mosumaa gis kuy liggéeyal Serigne Touba wala ku am pas-pas ci defal alquran jaarale ko ci Cheikh Ahmadou Bamba di bëgg dara muy muy des mu doo ko am loolu nag Cheikh Abdou Lahad mi mat na ci seede ndax daaw bis bee may def ca ba mas na faa ñëw fekk fa ma di ko def ñuy xëccoo maire am ku ñuy wax Abdoulahi Ndaw bi mu ñëwee ñu dem ci kilifa yi ak politiciens yëpp wax leen bis bi kere bi ñu eggee ci moom dafa jël téléphone am wax mboolem woo gouverneur ci sama kanam jox ma ko téléphone góor na ma sëñ bi loo bëgg ma limal ko li ma bëgg lépp mu bind kayit envoyé ko ci département bi mboolem service bu fa nekk ñu yabal la keroog nga ñëw bu sëriñ seexum seex Mamadou Muntaxa ñëwee ñu wax ko ko mu ne ko ah lebal na ku am ku amul pay waaye nag dina xam ne kim lebal rek a mat a lebal bi ñu demee dafa duur gaay dóor yu metti Cheikh Abdou Lahad mën na ci seede ba mu noppee def na ma man Baye Fall laa bisub seex Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall làmp bañ fay def ñëw mu wàññi téeméeri junni ak fukki saako ceeb bi yóbbu fa nee na man lu ma am Sëñ seex Cheikh Ibrahima ak mag ñi laa koy jaay bañ ci jógee fan yu néew ñu woo ko def ko président def ko directeur général développement local barke démb lañ ànd ci seex Cheikh Mamadou Mountakha kon sëriñ bi rek moo mat a lebal kon monsieur le maire noo ngi lay sant bu baax te di la ñaanal di la wax na Cheikh Abdoul Ahad yi nga jàppale def ko comme sa bopp na nga xam ne ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba bokk ndax sëriñ Touba moo tànn woo Cheikh Adama moo dem fekk ko mbaaw ne ko wan ko junj bi nga xamante ni moom la ko yàlla junj Seydina Muhammad alayhi salaam junj ko ko mu war koo rotal ci kanamu mbindee fi Cheikh Adama borom dimbali ko mu nangu nangul Serigne Touba ba kenn xamagut lu yoonu murit ba wax nañ ne mag ñi bu suñ masaan feeñal junjam boobu ci biir daara ji dañuy ñëw ne ko aadama dëgg li sa waa wax mu ne waaye moo ko wax ñu ne ko waaw mu ne kon dëgg la Seydina Aboubacar ak Seydina kon kii ku ko defal lu baax bu dee dëgg la te pas-pas ba sell loo bëgg danga ko am te maamam Cheikh ma dafa doon dafa dafa jàng jàng ak jàngale ci la nekkoon ak Cheikh ma baw ba sunu borom daf dogal sëriñ bi boo ñëw ak leeram kon kooku ku ànd ak moom di ko dimbali ci alxuraanul karim bay boo dalal sa xel ñoo ngi lay ñaanal yàlla na la sunu borom jàppale bu wér a di ñaanal mbooloo mi yépp di lu baax ci Cheikh Mouhamadul Basir ndax kilifa yi fi nekk nga xam ne ñoo bokk Cheikh Adama ci ñoom laa waroon a tàmbalee waaye ñoom ñoo moom ndax lu fi waaye def rek Cheikh Adama ko ko defal ndax ñii amuñu benn menn mécc muñ leen ràññee ci àdduna lu dul liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye nag jaare ko ci alxuraanul karim kon bu njabootu Cheikh Adama ñëwee fii ci tund wi fekk fi seeni bokk muy sëriñ jiidim sëñ Moustapha Walo ñu bokk lépp tund wi ñu samp fi daara yu bari ni ko seen maame defoon muy Cheikh Adama ak Cheikh Mbacke leeral naa ko ci ci suba nga xam ne Cheikh man sa jiili ma waxal boppam ne man su ma jubut ñaar fukki néeg ak nangam yi Cheikh ma babu bàyyi woon dem ci sëriñ bi la wax ne fas na ko yéenee sampal samp ko ay daara fayale ko Cheikh Mababou sëriñ bi loolu bokk na ci sababu Cheikh Abdoul Ahad mi ñëw waaye nag daa fay boro ndax Cheikh Adama kero bi nga xamante ne gis ne Cheikh Ahmadou Bamba muy leer goo xamante ne leer gu tiim àdduna bi yëpp la dafa dem jëli Cheikh Mababou ne ko bàq ba tooy xëpp nga nii ku ca jiw saw jiw mu sax rakam ju baax ja nangul ko déggal ko sikk sakkwut ñëw topp ci ginnaaw ba yàlla def li nu am tey ñu am ko kon ñoom lu ñu def ci lu baax rek war nañ ko def wajurum wi moom mi toog di seex sëriñ seex Ibrahima Fall loolu dama koy wax ci baas bi ñëpp xam ko ne sëñ Abdul Xaadar mais li ko boole seex ak seex Abdul Ahad mii dafa bëri ndax tey xalifab seex Aadama seex Ibrahima Fall lañ ko tuddee. Cheikh Ibra jël na ñaari doomam soxna Umu Xayri ak soxna Umu Kalsoom la fa njëkk yóbbu yàlla def ci moom li ko soob mu indi soxna soxna Umu Kalsoom jox ko sëñ Maguette Jama kon Cheikh Ibra Cheikh Adama pas-pas bu sell rek moo leen boole woon kon bu leen fi yàlla boolee lu ngeen di jéem rek yàlla mën na ko sottal kon waa mbaabu yépp ñu ngi leen di sant Serigne Cheikh sant na leen sëriñ Souleymane sant leen xalifa sëriñ malik sant leen. kon waa Mbaabu yëpp ngi leen di sant ndax Cheikh Abdoul Ahad mii mënut dara baas bi dong su ko bëggoon taxawal du sotti kon lu fi taxaw ci lu baax dëkk bi ak tund wi ñoo ko ñoo tax mu taxaw kon Cheikh Abdoul sant na leen waa Mbaabu sant nañ leen. ndax nit ku ko dimbali ci méccam ba man ca dara lu ci am rek war na la ko gërëmee te ndukkumaan bu ñu ñëwoon ñu jaay ko leneen lu bokk tëgg bu mbaax kon lii mu def tey du ko man kon waa ndukkumaan ñoo ngi leen sant waa kër Seex Aadama maa ngi leen sant waa Seex am Seex ma baaboo ngi leen sant waa kër Sëriñ Malick mi ngi leen di sant seen xol sedd na ci ni ngeen taxawoo Seex Abdul Ahad mii moom nag yàlla moo ma boole ak moom man 350 kilomètres ak fa ma nekk ak fii mat na ko ndax kuppantum laa nekk kon moom lu baax rek a ko ñor bis ba ma fay def yaakaar naa te ren mooy sama sixième édition day France jël oto ñëw ànd ko ak man ba yaakaar naa ne dëkk ba yaakaar nañu Cheikh Abdou Lahad mii rek mooy sama mbokk kon moom lu baax yàgg na koo ñor bi may ñëw barkeb sëñ ba Basiiru dafa am kilifa yu fa nekk yoo xamante ni li ñu amoon yéene pas-pas bi ñu amoon mooy ànd ak man am na ci koo xamante ni daf dama ci ab lal la tëddoon waaye bi may ñëw daf na ma booy dem nag ma ko wax damaa ñëw ba génn Kaffrine woo ko ne ko sëñ Ida mu ne ma ne ko man de départ naa mu lu tax waxoo ko ma ne ko damaa xam ne sa xol attan naa jóg ànd ak man waaye yaram bi àttanu ko kon bala ma dem su ma demee rek jot li cant ab nuyoo néew waa ko ja ba yëpp Cheikh Abdoul Ahad kon loolu nit ku bëggut lu baax mënu ko mu nit ku jub am ñëpp ñu baax ñi nangul ñu baax ñi doon ab tële bi liggéeyu waajuram it mu fes ci wér ndax ku xool digganteem ak rakkam yi xam ne yoon wi war a jaar mi ngi ci kon waa ndu ko man jumuñu ci moom giñ naa ko ci rasulullah nekk na sama daara ñaar lu mat weer bis bu ne ñaar fukki isib lay wax a fay ma di ko gis te ginnaaw dëkk balaa nekk bu ñuy julli ji ajuma su ma yeexee jóge tool moom danaa ko fekk ci jumaa ja loolu nit ku jub rek ko man ku mel noonu nag tund wu mu dig ñu téye ko te yàlla rek tax seen njariñ rek lañ téye kon Cheikh Abdoul yàlla la suñ borom jàppale jàppale waa Ndoukoumane monsieur le maire ñoo lay sant njaboot gi wax nañ ko sëriñ bi yónnee na ci yow ak sant ndax déplacement bi wax nga ko waaye loolu na xam ne mbaa bu yëpp nga ko defal ndax génn golo gudd na waaye loo ci laal ñu wér ko sa déplacement bi nga déplacé dem ca Daaru Géey ca liggéeyu sëriñ magee jëma ba nga xam ne moom lay defal sëriñ Touba la la Seex Ibra defal sëriñ Touba nga def ca la nga man yenn fa safoo leen faale leen na nga xam ne lu kawe ci sëriñ bi la te njaboot njaboot gi jàpp nañ ko nag te ay gor ay gor lañ ñoom buñ jàppee rek nga xam ne jàpp nañ kon sëriñ bi sant na la bu baax noo ngi siyaare mbokk yi fi nekk yépp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bis bii li nga xamante ne moom la ci sëriñ bi bëgg bëggal ko ci jullit yi yépp yàlla na dajee ci ñun bi jeexi Seydina Muhammad noo ngi nuyu Baye Bass di siyaare Baye Bass di nuyu mboolem taali taalibe yi fi nekk yépp suñu xol sedd na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yépp leen jéggulu te di leen jéggulu ndax yàggaayu jataay yàggaayu jataay bi ndax yàggaayu jataay bi bëggewu ma ko woon nii nee na bëggewu ko woon nii yàllaa ko dogale nii yàllaa ko ndax ñu fi toog di ay kilifaam ci barab mu nga téye leen ci barab ba waxtu wi wi diis na lool diis na lool waaye nag waaye nag bis bi moom waaye bis bi moom damay sant rek damay sant rek sant gi nag sant gi nag li ma ci jiital li ma ci jiital mooy mooy sëriñ bi bi ma fi ñëwee. ndax bi ma fi ñëwee. benn pas-pas rek laa fi ñëwee. benn pas-pas rek laa fi mooy liggéeyal sëriñ Touba. mooy liggéeyal sëriñ Touba. te jaare ko ci buntub Cheikh Adama. te jaare ko nee na mooy pas-pas bi ma fi ñëwee. kon nag kon nag. fi ñëwee. li mu bi mu bi ma fi ñëwee. waa dëkk bi yëpp. waa dëkk bi yëpp. àndandoo nañu. àndandoo nañu. jàppale ma ci li may def. jàppale ci li may def. sant nag ba cant jeex. sant nag ba cant jeex. ku la defal lu baax. ku la defal lu baax. war nga koo sant. sëñ Jili. sëñ Jili. mbir mépp. mbir mépp. mépp. moom la ko yàlla jaarale. moom la ko yàlla jaarale. muy nit koo xam ne. muy nit koo xam ne. jàppale na ma ci lool. jàppale na ma ci lool. ñëw. ndax bi ma fiy ñëw. toog fi yombut. toog ak bëgg ma fi taxoon a toog. waaye li ma fi tax a toog it. ma fi tax a toog it. damaa wóolu sëriñ Touba. damaa wóolu sëriñ Touba. te gëm ko. rawatina Cheikh Adama. rawatina Cheikh Adama. ma jàpp ne foo ne. te nekk fa la fa war a nekk. te nekk fa na nga fa war a nekk. dana la wuutu ci sa mbir yëpp. dana la wuutu ci sa mbir yëpp. te loolu aw ma ci lu may sikki sàkk. kon nag. kon nag. maa mi ngi sant. tàmbalee ci waa dëkk bi. sàmbalee ci waa dëkk bi. góor ñi. góor ñi. jigéen ñi. jigéen ñi. mag ñi. mag ndaw ñi. su ma ko waxee rek. su ma ko waxee rek. day yóbbu ñëpp. day yóbbu ñëpp. ndax bëgguma kàddu yu gudd. bëggut kàddu yu gudd. ndax sama diggante ak ñoom. ndax sama diggante ak ñoom. sama cant ak ñoom. sama cant ñoom. xajut ci biir baas bi. ci biir baas bi. kon ñooñu moom. kon nag moom. ñooñu foofu laa yem ak ñoom. nee na foofu la yem ak ñoom ci cant. la ca dolliku. la ca dolliku. muy sama yu baax yi. muy bokkam yu baax yi. mu bokk ak ñoom mbaabu gépp. te mu bokk ak ñoom mbaabu gépp ren moom. ren moom. nii ñu ñëwee. nii ñu ñëwee. gëj nañ koo ñëwee. gëj nañ koo ñëwee. te ñoom kat. te ñoom kat. fu waay mën a nekk. fu waay mën a nekk. ku leen gis. ku leen gis. xam ne dañoo bëgg mbokk. xam ne dañoo bëgg mbokk. ñoom foo leen fekk. ndax foo leen fekk. xam ne ñii ci njabootu baabu lañ bokk. xam ne ñii ci njabootu baabu lañ bokk. yomb nañoo xàmmee. yomb nañoo xàmmee. ndax kenn ku ne. ndax kenn ku ne. da ngay kale sa morom. da ngay kale sa moroom ñii ñaar ñëpp. ñii ñaar ñëpp. samay rakk la. samay rakk lañu. maa ngi ñoo bokk lépp. te boo boo ñu fekkoon fa ñu dëkk. te boo nu fekkoon fa ñu dëkk. mën nga ñoo bañ mën nga ñoo a xàmmee. loolu nag loolu nag. moo daj ñu bokkal ñëpp. moo daj ñu bokkal ñëpp. kon nag kon nag. ñoom moom. kon ñoom moom. maa ngi leen di sant. maa ngi leen di sant. ndax ca suba. ndax ca suba. lañ tàmbalee ñëw. te suba lañ tàmbalee ñëw. lim nañ mbooloom yëpp. Euh, sëñ Abdou Samad lim na mbooloo mi. sëñ Abdou Samad lim na mbooloo mi ñëw ñëpp. du ma jaaraat ci tur yi. du jaaraat ci tur ngir ak guddal. ngir ak guddal. kon ñoom moom. kon ñoom moom. sant naa leen. sant naa leen. sant gu gën rafet. sant ku gën a rafet. ndax kat. ndax kat. lii may def. lii may def. ci ndigalu kilifa gi laa koy defee. ci ndigalu kilifa gi laa koy defee. muy sëriñ Cheikh Fall Gueye mi nga xam ne. muy sëriñ Cheikh Fall nga xam ne. moo fi nekkal Cheikh Adama. moo fi nekkal Cheikh Adama. dara ump ko ci bis bi. dara ump ko ci bis bi. ndax ab taawam ñëw na. ndax ab taawam ñëw na. mi ci kër gi. mi ngi ci kër gi. sëñ Abdou Samad ñoom a ñoom a ngi nii soxna jaw ñoom ñëw nañ sëñ soxna jaw ñoom ñëw nañu ñoom la bokkal benn baay ñoom bokkal benn baay kon loolu kon loolu cant gu kawe la cant gu kawe la Cheikh Adama Cheikh Adama yow nag yow nag Guèye dañ laa tuddee Cheikh Adama. dañ laa tuddee Cheikh Adama. ngay wóllëre ngay sama wóllëre. ngay wóllëre sëriñ bi. di sama mag. di sama mag. di sama xarit. di sama xarit. lii mu def nii. lii mu def nii. ñi dëkk ci tund yu bari nañ. ñi dëkk ci tund yu bari nañu. waaw yomb ko. waaw yomb ko. dem ci ab baas ba heure bii. dem ci ab baas ba heure bii. yomb ko. yomb ko. kon bu ko defee. kon bu ko defee. ak cofeel rek la ko def. ak cofeel rek la ko def. kon moom moom. kon moom moom. sant naa ko bu baax a baax. sant naa ko bu baax a baax. cant ak bokk yi moom. cant ak bokk yi moom li ma ci li ma ci yéene. li ma ci yéene. daa xajut ci baas bi daa xajut ci baas bi. moo tax du ma ko mën a tax duma ko mën a wax. kon kilifa yi nga xam ne. kon kilifa yi nga xam ne. di di kilifaay diine. ma bokk ak ñoom tund wi. ma bokk ak ñoom tund wi. képp ku ma tudd sa tur. képp ku ma tudd sa tur. ak ku ma tudd sa tur. ak ku ma tudd sa tur. na la wóor ne. na na la wóor ne. am nga wàccuwaay ci sama xol. am nga wàccuwaay ci sama xol. wu rëy rëy rëy. wu rëy rëy rëy. ndax jàpp gi. dafa rafet. rawatina sëriñ Abdou Khadir mee toog. ngeen xam ne. ngeen xam ne. nga xam ne bis bi lu ci dàq. jàpp ndalama jàpp ndalama. waa këram ñëw nañu bu waa këram ñëw nañu bu yàgg. lépp lu ma ci bëgg. te lépp lu ma ci bëgg. da ko yombal lool. da ko yombal lool. ni mu jàppee mbirum boppam. ni mu jàppee mbirum boppam. ni la jàppee sama mbir. ni la jàppee sama mbir. këram dara jafewuma. këram dara jafewuma fa. te lépp te lépp mi ngi sababoo ci Cheikh Adama ak Cheikh Ibrahima mi ngi tawa sababoo ci Cheikh Adama ak rek dañuy ñaar ñoo xam ne dañuy ñaar ñoo xam ne seen ak jaxasoo seen ak jaxasoo mbirum sëñ Touba leen boole sëriñ Touba leen boole kon ñun liñ ci war rek kon ñun liñ ci war rek mooy sàmm gi mooy sàmm gi kon nag maa ngi koy siyaare bu baax kon nag maa ngi koy siyaare bu baax di la beral am nuyoo sëriñ Matar Dem mii li nga ci wax rek. li ma ci wax rek. suñu maam yee bokkoon lépp. suñu maam yee bokkoon lépp. muy wëllëreem woo xam ne. ku ne ci daara ji. ku ne ci daara ji. xamee nga ko xamee nga ko. otoom daa mel ne maako moom. otoom daa sëriñ bi daa mel ne maako moom. daanaka li li muy nekk ak man. daanaka li muy nekk ak man. xanaa moo ëpp li muy nekk ak moom. xanaa daanaka moo ëpp li muy nekk moom. fu ko neex yóbbu ko. te du ma ma sëriñ bi. te du ko wax ne ko sëriñ bi. ne ko kañ ngay wàññiku. loolu ak jaxasoo rek ko kon sëriñ Maxtaar ñu ngi lay sant bu baax. bokki mexe yii nga xam ne sëti sëñ Babacar Ndiaye Cergaan lañu di góor yàlla goo xam ne dañoo bokkoon ci mag ñi ñëwoon ci sëriñ bi am na ku ma ci nettali. ku ma ci nettali. bokk ca ñoom. ñu bokk ca ñoom. ku bokk ca ñoom. ne ma sëñ Babacar de. ne sëñ Babacar de. ci bëtub Seex Adama la njëkk a gisee sëriñ Touba. ne ko bàyyi ma ko ko wax. te mu dëkk ca kër googa. moo ko ko wax. kon ñoom bu ñu ñëwee ci bis bi. kon ñoom bu ñu ñëwee ci bis bi. moo ñoo ma ci bokk yam. kon maa ngi leen sant bu baax. kon sëriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax. doora ñëw nag ci ñii. di sant yi sant Mbàkke. di sant yi bu. ak sëriñ Jili Anta mii. ji ak sëriñ Jili Anta ndax fu sori lañ bàyyi ko. ndax fu sori lañu bàyyi ko. demee ci poste boo xam ne. demee ci poste boo xam ne. bett nañ ma ñoom ñaar ñëpp. bett nañu sëriñ bi ñoom ñaar ñëpp. kenn ku ne. kenn ku ne. waañ nga ba jekk. waañ nga ba jekk. ma door a xam ne da ngay ñëw. màggal gi màggal gi nawete gi nawete gi moo tax mu yërëm kilifa yi moo tax mu yërëm kilifa yi ba am na noo xam ne ba am na noo xam ne yëgalewu ma leen ko leen ko noonu lu dul waa tund wi fii daa nawet ndax fii nawet daa xaw a naqaree ñëw daa xaw a naqaree ñëw kenn am gàllankoor te bëgguma kenn am gàllankoor waaye nag baas bi waaye baas bi maa ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. kilifaay diine yi. kilifaay loolu laay sant ci ñoom. loolu laay sant ci ñoom. nañu xam ne daal. nañu xam ne daal. wax daa mënut daj ñëpp. wax max daa mënut a daj ñëpp. waaye ñoom ñëpp maa ngi leen waaye ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di sant. kër sëñ Touba gii. kër sëñ Touba gii. Mor Ngom mi nga xam ne. Mor Ngom bàcc mi nga xam ne. lépp lu fi ne. lépp lu fi nekk. ak njàmbaaram ci njàmbaaram la fi nekke du ko fàtte mukk ko fàtte mukk bis bi bis bi da ciy sonn lool da ciy sonn lool ren dana ma sëñ bi ren da ko ne sëñ bi mënumaa ñàkk ñëw mënumaa ñàkk ñëw ba yàgg mu waat ma ne. ba yàgg mu waat ko ne ko. dama am ay yoo xam ne. dama am yoo xam ne. mënu ma ñàkk dem ca réunion. mënu ma caa ñàkk dem bi moom. waaye bis bi moom. damaa yitteel lool. damaa yitteel lool. démb rek waat na ko. démb rek waat na ko. ma nekk yow laa fa ne ko mu ne ko fu ma nekk rek yow laa fa nekkal. na sa xel dal ci loolu. kon nag seen faal mi it. kon nag seen faal mi it. ngi koy sant. mi ngi lay sant bu baax. sama jàpp sama ak moom. ndax jàpp sama diggante moom. daa rafet lool daa rafet lool. waa dëkk bi yëpp xam nañ waa dëkk bi yëpp xamal na ko. te damaa jàpp ngir yàlla. da koo jàpp ngir yàlla. ndax da ëpp yitte foofu. ndax dafa ëpp sëriñ bi yitte foofu. koo xam ne. day ñëw sa daara. day ñëw sa daara. indil la ay ganaar. indil la ay ganaar. avant ngay yeewu. avant ngay yeewu. mu tegal la ko fi. mu tegal la ko fi. nga génn ñu ne la. nga génn ñu ne la. seen faal la ko yónnee. seen la ko yónnee. man léeg-léeg sax dama koy fàttewoo. nee moom da koy fàttewoo. am na boo xam ne damaa ñëw. am na boo xam ne damaa ñëw. mu ne ma yi moo la ko indil. mu ne ko ganaar yi ko indil ak garab yi. ak garab yi ak garab yi. am na boo xam ne damaa ñëw. am na boo xam ne damaa ñëw. mu moo ko fi mu ne ciment bii moo ko fi indi. lu ci bari. du ma ko woo sant ko ci. sant ko ci. ndax damaa xam yàlla tax mu di ko ne dafa xam ne yàlla tax mu di ko def. li ma dem këram. li ma dem këram. bariwut bariwut. te li mu ñëw fii. te li mu ñëw fii. bari na lool bari na lool. moom it maa sëriñ bi ne na mi ngi lay sant bu baax. cant gi daal cant gi daal. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant. rawatina waa tund wi. rawatina waa tund wi. bàyyiwuma benn dëkk. bàyyiwuma benn dëkk. ci suba ak léegi. ci suba ak léegi. mbooleem dëkk bu nekk ci tund wi. nekk tund wi. ñëw nga ba ci man. ñëw nga ba ci man. saafonteeg man. saafonteeg man. safoog man yow mbir mi. man mbir mi. dëkk yëpp la wax. dëkk la wax na. damay a lim. day bañ a lim. di bàyyi ñenn. di dese. waa dëkk yëpp. waaye dëkk yëpp. kenn ku ne. kenn ku nekk. ci suba ak léegi. ci suba ak léegi. ñëw nga jàmmante ak man. ak man. kon ñoom. kon ñoom. mënuma leen a mënuma leen a ñàkk a sant. mënuma leen a ñàkk a sant. maire. monsieur le maire. damaa egseegut ci moom. damaa egseegut ci moom. maanaam moom xalaatuma koo fàtte. waaye xalaatuma koo fàtte. ndax moom sama diggante ak moom. ndax moom digganteem ak moom. ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ko. xam ne waa tund wi daal. waa nañu xam ne waa tund wi daal. sant naa ñëpp. sant naa ñëpp. bàyyiwuma benn dëkk. bàyyiwuma benn dëkk. liñ doon yëgle. ndax yiñ doon yëgle. ànd nañ koog ñun bu baax. ànd nañ koog ñun bu baax. démb. démb. la kilifa yi tàmbalee ñëw. démb la kilifa yi ñëw. ñu bari. ñu bari. démb lañ ñëw. démb lañ ñëw. feeñal seen yéene. yéene. ngir bisub ngir bisub tay bi. day xat. am na kilifa gu léegi gu fi tàggoo am na kilifa gu fi tàggoo léegi bi muy dem li mooy bi muy dem li mu ko wax moom sëriñ Abdoulahat ñi la wuyu si la wuyu si kenn ku nekk kenn mën na laa jur na laa xam nga ne jikko rek leen kon xam nga ne jikko rek la fi indi mu xam ne loolu lu wér a wér la te ay mag rek ko wuyu si ñi mu ci tolloole at bariwut kenn ku nekk kenn ku nekk kilifa nga fa nga nekk monsieur le maire nag monsieur le maire nag na mi ngi lay sant bu ma nee maa koy sant. bu ma ngi koy sant. du jaaxal kenn. du jaaxal kenn. diggante ndax digganteem ak moom. samay bokk ngi nii toog. samay bokk ngi nii toog. yëg nañ ko yëg nañ ko. waa dëkk baa ngi nii toog. waa dëkk baa ngi nii toog. yëg nañ ko waa tund waa ngi fi. waa tund waa ngi yëg nañ ko yëg nañ ko. rawatina waa commune bi. waa commune bi. kon jàpp gu rafet la. kon jàpp gu rafet la. Babacar Ndiaye it. Babacar Ndiaye it. mënu ma koo ñàkk sant. mënu koo ñàkk sant. moom. ndax moom. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. li ñu seq ma ak moom. li ñu seq ma ak moom. ak catam. ci ak catam. laa ñëw laa ñëw. waaye nag ba tey. waaye nag ba tey. ma jàpp jàpp bu rafet. dafa ja da koo jàpp jàpp bu rafet. li may woo. lim may woo. di ma nemmiku. di ma nemmiku. du ma ko nemmiku lu toll. nee na du moom mi lu toll noonu. caw la fi yónni. caw la fi la yenn ba jant bi so. fi la yenn ba koy sant. Serigne Khadim. Serigne Khadim. mi nga xam ne. mi nga xam ne. mooy jàng guddi gi. mooy jàng guddi gi. moom xam ngeen ne. moom it xam ngeen maa ngi koy sant cant gu kawe. ak Serigne Saliou Samb. ak Serigne Saliou Samb. monsieur le le maire. na nga xam ne. na nga xam ne. sa ndaw yi nga yebaloon. sa ndaw li nga yebaloon. ñuy waajal màggal gi. ñuy waajal màggal gi. wàllu làmp ci la wàllu làmp yi. def nañ ci seen kem kàttan. ndax ñoom. commune bi commune bi. ñëpp xam nañ ni ma demee ak ñëpp xam nañ ni ma demee ak yow. dara jafewuma. dara jafewuma. benn yoon laa kon commune seen bopp bi defe na ne benn yoon la fa mas a dem wala ñaari yoon moom lépp lu ma soxla lépp lu ma soxla su ma téléphoné su ma ko na ma ko bëggee ko na ko bëggee nga xam ne kon nga xam ne maa ngi sant ci loolu bu baax maa ngi sant ci loolu bu baax rawatina nag soxna Khady Faye mi nga rawatina nag soxna Khady Faye mi nga xam ne daa dëkk ci dëkk bi daa dëkk ci dëkk bi ñu bokk màggal gi ñu bokk màggal gi na nga xam ne na nga xam ne ni muy sonne ci yow ni muy sonne ci yow noonu lay sonne ci man noonu lay sonne ci sëriñ bi màggal gi bokk na ci ñi ko jagal màggal gi bokk na ci ñi ko jagal alal ci njëkk ma ci njëkk li ci ëpp. li ci moom laay woo. ne ko demal ma barab sàngam. ci koo xam ne. ci koo xam ne. da ngay jàngale. da ngay jàngale. nekk maire. ba noppi nekk maire. xam nga ne sag jot yombut. xam nga ne sag jot yombut. li ma koy li ma koy doxloo ci course. li ma koy doxloo ci course. dafa bari lool. dafa bari lool. te sëriñ daa texet moom. te sëriñ moom daa texet moom. li mu bëgg rek lay wax. li mu bëgg rek lay wax. léeg ma teg ko ko sax. ba yàgg sama xel. ba yàgg sama xel. yedd ma. ko. ma ne ko kii moom xanaa amut yitte. looloot looloot kawe na ci man lool kawe na ci man lool manjaan moom bu ma santee mairie moom bu ma santee mairie daan sa sant na manjaay damaa jàpp ne benn la dañoo jàpp ne benn la ñaari du ma ko tudd moo tax ñaari du ko tudd kon kaddu yi kon kaddu yi bañ mooy bañ mu gudd waaye nañ xam ne mbooloo mépp nañu xam ne mbooloo mépp ñëpp laa sant ñëpp laa sant kon nag kon nag dañuy jox sëriñ jiili mbàkke kon dañuy jox sëriñ jiili mbàkke ci kaddu kilifa yëpp mu wax ci kaddu kilifa yëpp bu noppee ñaan kilifa yëpp dimbali ma yi ñëpp dimbali ma ñu dem ba ca barab ba xéewlu ñaalalante nañ xam ne rajo yi ndàngal maak mu ngi leen di sant sit bii di Yaa maa ngi leen di sant maa ngi ak presse bi yëpp bàyyiwuma kenn képp ku ma bàyyi daal xam ne sama xel a fat waaye waaye ñëpp mu leen sant bàyyiwunu kenn kon bu sëñ jiili waxee sànni ci kàddu mi. Cheikh Adama mi. ak Serigne Souhaïbou. sëñ ñoom ñëpp sëñ jiili la ñu wax ne. mu wax ci kàddu doomi soxna yi. bu noppee ñaan. ñu jàll ca barab ba xéewlu. bisimilah. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin. seydina wa mawlaana muhammadinil makin. wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wasid baraayi yaa rabbi lisrah fi dawaami sadri sarham bihi akunu misla badri mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu bu baax gannaaw bi ñuy jiitalee sant borom bi subhaanahu wa julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di yeesalaat sunug taalibe ak sunug aju ak sunug jaayante ak sunug cofeel ci mawlana seexul xadim radiallahu taala anhu wa nafaana bi di ñaanal alxalifatul am li tariqatil muridiya cheikh mouhamadinil muntaqa mbàkke suñ borom yàggal ko fi te may ko wér ba mu àggale mbooleem ay naalam ak yéeneem ci lislaam bi ak ci diine ji ak ci yoonu murid di ko ñaanal mboolem xalifa yi nekk ci réew mi yëpp rek ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci diine ak foo ko foo mën a nekk ci réew mi yàlla defal la jàmm defal la sutura di nuyu bu baax mbokki taalibe yi fi teew yëpp mbokki taalibe nag mooy mbokki jullit di leen jox seen wàccuwaay di nuyu sunu mbokk mu baax mii ñu dendal di sëriñ Soy bu Mbàkke nga xam ne lii ñuy wax moo ñu ci gën a jekk dàq ñu ko waaye woyefam ak mbaaxam moom rek a tax bañ naa ba sonn nag waaye mu jox ma ko rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm eh, di la jox sa wàccuwaay di nuyu mboolem mbokk yi fi teew yëpp di nuyu njabootu Cheikh Adama Gueye gi fi teew ak njabootu mu baabu gépp dañuy bañ lim nag ndax bu ñu limee rek dina am ñu bàyyi waaye ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp mboolem ku fi teew rek. te sa maam àndoon ak Serigne Touba nekk ca ronam nga di ko lëggéeyal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay moo xam njabootu Cheikh Ibra Fall ak Cheikh Adama Cheikh ma baabu sëñ Babacar Ndiaye ak sëñ maxtar Bintaloo ak ku fi teew rek ci njabootu Serigne Touba gi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu monsieur le maire Pape Momar Ngom tey laa ko mës a gis waaye xam naa ne nit ku baax la yaram ak tegginam ak taalibeem muy nit ku baax ndax sëñ Abdoulaat mii yàgg na maa wax diggante ak moom ndax nee na ma ba tàyyi kooku ku may toppatoo la ku may jàppale la dafa ma ne ndax moom day sama xarit dañuy waxtaan ci lu bëree bëri bëri loolu dégg naa sa tur te mosuma laa gis waaye bi ma la gisee la ma doon wax ci yow lépp de day mel na gis naa lu ko ëpp sax ndax liñ seere fii ci yow rek doy na sëkk. ku dégg bi nga jëlee kàddu li nga fi wax muy projet politique yi nga am loolu de yaakaar naa ku bëgg lu baax da nga ko rafetlu fexe bañ indiwaat njàngalem mag ñi jàngal ko sunuy doom muy gëm sa bopp loolu yaakaar naa euh, képp ku bëgg lu baax rek war na ci ànd yow jàppale la ci léegi rek ñuy waxtaan nga may wax ne ma commune bi nga ne am nga yéene def ko zone industrielle loolu mooy sa pas-pas fexe ba ndaw ñi am ay ressources yu mën a jàpp ci liggéey ndax fii ku na xam na ne bawal amul géej amul daanaka lu am solo daanaka bay rek lañ xam te mbay mi amatul solo kon war nañoo créer yu mel noonu ngir dimbali jeunesse bi loolu lu am solo loo xam ne ni wax dëgg yàlla yàlla na la ci suñu borom taxaw jàppale la wax dëgg yàlla ñu ngi lay doo gis waaye mën nañoo seere na nit ku baax nga kon nag ñu ngi lay dénkaat Sëñ Abdou bulaat nga jàppal ñu ko fonkal ñu ko ndax moom day sunu lépp di sunu mbokk ndax Cheikh Adama Guèye mii maamam sëñ Tuubaa ko boole woon ak sunu maam sëñ Mbàkke Kajoor ca Mbàkke Kajoor muy boole goo xam ne nii moo war di continuer ba agsi ci waajuram di sëñ Cheikh Fall Guèye moom tamit mu taxaw ci taxawaay yu rafet a rafet amut lenn lenn luy xew ca kër ga te woowul sëñ Moustapha mii xalifam sëñ Mbàkke Kajoor wax ko ko yëgal ko ko mu yabal ci ak te te teewul sëñ Moustapha da ci yabal ak njabootam man mii seere laa ci waajuram di ko woyof nag man mii day sa day yëkkati téléphone am sax di ma woo xam na ko suñ bis bii ñuy defal sëñ Mbàkke Kajoor ci weeru korite dañ koy ànd ak ñoom ñii taabaroon bañ doon def seen kër lañ ko doon defee loolu kóllëre la Cheikh Adama Gueye sunu maam di sëñ Mbàkke Kajoor moo ko taxaw te loolu boole ga leen sëriñ Tuubaa boole woon a tax moo tax bi sëñ Tuubaa jóge ci géej gi ganasi ko ganasi sëñ Mbàkke Kajoor ca Mbàkke Kajoor ba mu ne ba war a dem la ko wax Cheikh Adama mi ngi ñu booleloon a maag maag maam Thierno bi mu nelawee denc nañ ko fii ci armée li sëriñ Tuubaa daa dox ak tànkam tiim Cheikh aadama ñaaral ko muy lu am solo loo xam ne ne mat nay fàttaliku di ko nettali ndax ñu xam li ñu boole Cheikh Abdou Lahad di jàmbaar di as gor waaye di jullit waaye di taalibe di ko xam àddina ndax am xelam rafet na di koo xam ne nii lim yéene boppam rek la yéene ñëpp yàlla xam na ko te yonent saa daa wax ne laa laa yuminu ahadukum xataa yuhibba li aqihi maa yuhibbu li nafsihi nee na nit ki ak njullitam du wér mukk lu dul lam yéene boppam ci lu baax rek da ko yéene ñëpp suñ borom di wax na yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man atallaaha bi qalbin salim ci alquraanul karim muy wax ne yawmal xiyaam alal ju bari du fa jariñ de ak doom yu bari déedéet li fay jariñe mooy xol bu set wécc te moom yàlla dénk na ko loolu si ablaat kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal fii ñi fi ñëw de ay niti qualité rek ñoo fi ñëw ay boroomi daraja ak i boroomi cër ak nit ñu yiw nit ñoo xam ne ni kenn ku ci ne rek mën naa ne jug loolu yombul ndax yaa ngi ci yaa ngi ci ay yitte waaye boo leen jaralee ñu bàyyi ko fu sori ni ko sa mbokk mi waxee léegi ne mu ngi jugee eh, côté Tamba nu mu ànd ak yow bis bii xamal na sa jikko la man mi jóge Mbuur ànd ak sëriñ amatu Sarr mais di sa mbokk. Ah, Amadou <laughs> waaw man nag Abdoulaye laa fi teewal nag teewal fi Abdoulaye Sarr rakkam <laughs> xam naa nag moom xeeri dina ñëw eh, ak sëñ Mor Sylla mais di sëddu sëñ tafsir buubu la moom tamit ma ànd ak moom ak sañ seen mbokk hmm, sëñ Aliou sëñ Aliou Guèye li ma bëgg wax ma ñoom ñëpp rek kenn ku ci ne sa jikkoo tax nga ñu ñëw ndax man mi yàlla xam na tey jii bàyyi naa ay programme buur ay safar yoo xam ne nii man maa ko doon a am na ci boo xam ne nii moog sama kër ca marché bi ñuy wax marse Ocass matul sax 100 euh, mètres waaye dem leen jox ngànt ne leen kii may dem bisam de day sama nawle di sama xarit di sama mbokk bis yi may def mbuur day dëgg ay yitteem taal otoom ñëw ànd ko ak man di ku baax bàyyi leen ma dem foofu rek te ñu fi nekk teewal ma fi yàlla xam na ko te te xam naa ni mu ko defalee ñu bëri noonu lañ ko ko defalee kon nag jikko ju baax mooy lépp eh, sama waajur ñu wax sëñ Modou Mbacke galawngal yàlla na yàlla dolli ko yërmaane day wax ne boo seenee boo seenee mbooloo muy ñëw boo cay xool koy tànn ànd ak moom ka ca gën a rafet ak col wala mu gën caa silwise ngay tànn boo leen seenee muy ñëw rek la wax nag waaye bu ñu demee ba agsi ba ba jël kàddu kenn ku ne wax booy xool koo cay tànn ka ca gën am xel ngay tànn ànd ak moom waaye bu ñu demee ba dara desul lu dul dëkk nag ka ca gën a rafet jikko ngay tànn dëkk ak moom kon jikko ju rafet mooy lépp moom mi nag yàlla nekku na ko jikko ju rafet ndax jikko ju rafet weesuwul fonk say bokk yëg say bokk loo xam ci lu baax wax ko sa wax sa sa xarit wala sa mbokk loo xam ne lu koy jariñ la nga bi laabiré ko loolu mooy mooy mooy jikko ju baax ñun nii ñëpp nag jikkoom jooju ci la ñu tënke ci la ñu moomee ba lu mu nekk ñu ànd ko ak moom kon nag seen moo bëggee jël kàddu di wax ci yow daanaka fi la ñu fanaan li sa bokk yi seere ci yow rek doon na sëkk euh, sant nañ la daal bu baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla na la suñu borom jàppale projet yi nga am ci daara ji yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa njott ndax yi loolu loolu rek mooy seen dono muy alquranul karim seen maam yi ci loolu rek la nekkoon ak seen waajur ya kon boo ci nekkee euh, euh, mujjewoo pousse bi mu réer la sa waajur ya woon rek ci nga nekk di sant waa dëkk bi ñoom ñëpp. di leen gën a di leen di leen ko gën a dénkaat ñu fonk la te jàppale la euh, xam naa ne jàppale na la fonk nañ la waaye nag euh, ñun dañuy say bokk di say xarit dañ la koy gën a dénkaat ñu jàppale la ànd ak yow liggéey bi ndax ku gis fii kër sañ Tuubaa gi ni mu mel xam ne boo yaafusoon lii du fi taxaw kon nag loolu njàmbaar la dañ ko war a wax euh, képp koo xam ne nii sa morom la war naa roy ci yow ndax lii ku ku bëgg lu yomb wala wala wala nga tàyyeel doo fi nangoo toog ndax Touba neex na loolu wala Ndakaaru bu la neexoon nekk fa waaye ñëw ci àll bii di bay di jàngale loolu pas-pas la loolu jom la loolu njàmbaar la loolu yitte la kon nag yàlla na la suñu borom taxawu yàlla na la suñu borom sàmm yàlla yàlla barkeel la di sant mboolem mbokk yi fi teew yëpp rek bàyyiwuñ kenn daanaka kàddu yi moom mëtt a guddal ndax li war a wax lépp ñuy jiitu wax nañ ko di saare suñu Abdou Khadir mais moom tamit ndeysaan euh, di suñu turandoo moom tamit kàddu yu am solo seere na ko fi sëñ Abdoulaat seere na sama sa wax na ma sa diggante ak moom ni nga ko taxawoo ci dëkk bi ak ni nga ko jàppale ngay xaaritam di léppam waaye nag ni ko sëñ bi waxee rek Cheikh Ibra Fall moom daa bëri lu seqoon ak Cheikh Adama Gueye kon kóllëre googu rek ngeen di suuxat moom ngeen di moom ngeen di sàmm yàlla na yàlla fay leen di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa bokk yi